di nuyu kilifa yi diine ci réew mi di ziare mboolem njabootu Serigne Touba ak fu ñu mën a nekk ci àddina di nuyu jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay di ko ñaanal tawféex ak sutura di ziare baax sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbooj ak mboolem kuy ŋànk ci liggéey ci télévision bi dellusiwaat ak yéen ci seen émission bu mag bii di eh, diwaan diwaan ñu baax ko di àndandoo ak eh, Serigne Jibril Ndaw mi nga xam ne mooy directeur programme Touba TV Eh, saa su nekk ñuy ànd ci nga xam ne ni mooy eh, liggéey bi ci émission bu mag bi di bokk itam li nga xam ne mooy thème yu wuute ak borom xam-xam yu wuute yi ñu ci dalal eh, tey jii nag xam ngeen ne li ñuy wax rek lu ay di njàmbat ni nga xam ne ni moo xew mooy xaside yi ak taxawaay bi ci Cheikh mun Muntaxa am ci fas yéene berbis boo xam ne nii dana ko def muy la onze bi mu woo mbooleem ahlu xasida ngir ñu taxaw li nga xam ne mooy ñaan ak dundal li nga xam ne ni mooy bis bu màgg boobu Eh, ci ni ko Serigne Touba don nané lim mu waxoon ne lépp am eh, ci tag yonenti bi alayhi salatu wassalam ci la ko amé mo waral mu meuna am safras. adina ak sos alakhirah loolu moral Touba TV jël ci walam xam ngeen ne boobu ba léegi ñu ngi lëkkaloo ak ñi nga xam ñoy liggéey ci walu bi eh, ak ñi nga xam ñom la serigne bi tégon liggéey bi ci seen loxo waye tay ji nak ñu fasiyene ñëwaat ci ndariñul khasida ñëwaat itam ci yi ñu meuna jangate ci li nga xam ne moom lu la Cheikhuna Ahmadul Xaddim bind lépp nag ñu jëm ko ci waajtaayal bis boobu ndax jàpp naa ne kenn ku ci nekk euh, bu ñu waxtaanee dëgg dëgg dëgg dayoo bi nga xam ne ni xasida am na doonte euh, mbokki taaliba yaa ngi ci nab bi seen kem kattan dana nekk loo xam dana yokk njariñ waaye dana yokk itam aw xel wu ñuy daw euh, ci xasida ndax borom li ñu waxoon rek ne ba mu koy bind fam ko doon bindee ak contexte ba xel nanguwul sax ni bu ci bu ci bu amone len luñ ci yokk sax dañ nan xel man nako nangu ndax condition yam nekkon waye ba fii ñuy wax ak yéen kenn du ci yokk virgule kenn du ci wàññi virgule ndax mat na sëkk ba pare mu booleeg nak lépp nak di ndimbalul jam ñi adina ak lool alakhirah lool mo waral ñuy ñaanal bax Cheikh Mamadou muntaha sun borom yagal ko fi lool te muy wér ci yeen gi mu yéene ummat islam bi yëpp jam ci yeen gi mu leen yéene tawfiq ba wax ne nañ delu wat ci xasse yi na ko sëñ touba waxé won am daahu xaadat lana salaha wal amna wat tawfiqa wal falaha day mel ni ñetti yooyu rek ku ko boole sax day jar day jar sëkk sax ñu indiwaat xaside yi beral ko bis jàng ñaan suñu borom def ay tawasul ñaan ci réew mi waaye ñaan ci àddina si suñ borom tek loxo ci mboolem ummatu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lolé nak liggéey bobu xam ngeen ni jamono yëpp Touba TV sax mi ngi ci def ay wàll yu am solo waye tay jàpp na ne moy don bis bi nga xam ne ni xëy na ci teunk gi waye jëmal waajtaay jëmal ko ci bis bu mag bobu lol nak jàpp na ne gan ñi nu am sëñ Jibril ginaaw bo nuyo dana nek gan ñu dëppoo ak li ñu war a ci xasida yi ndax seen doxin ak seen taxaway buñ ci fegg ko melni serigne Abdoulaye Diop Bichri khadimul khadim nga xam ne ñu ci télévision Touba TV Euh, di ci liggéey liggéey bu am solo def ci itam ay abyaat yoo xam ne ni ay leeral ci xasida yi gis nga émission bu mag bi ñuy def ci kenn sëriñ bi saa su nekk mi ngi jël ab mbind di ci waxtaane jëmee ko ci wàllum xasida yi ak li koy li koy jari li ciy jariñe euh, waaye sëriñ Xaadim Njaay Kayaar euh, di koo xam ne ni waxuma sax kilifa gi ak xam-xam bi waaye seetlu toppook li nga xam mooy xasida yi ba créé émission yoo xam ne ni lépp day jàngale xam-xam ak di leeral li nga xam ne mooy mbindum Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey mu jóge Kayaar waaye nekk fële ci télévision Lamp Fall TV ñu wuy suñu liggéey bi ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ci teewaayam di ko jox wàcc waay mu amee waaye Serigne Saliou Samb eh, ku ne xam na itam liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba ci di ko waxtaane ci réew mi ak bitim réew dikk borom xam-xam boo xam ne kenn dootu ko présenté téléspectateurs yi rawatina fii ci eh, Touba TV eh, ñuy am mbégte bu baax a baax ci teewaay gi mu am ndax gis nga bi Serigne bi taal taxawalee bis bi rek Eh, teg ko ci loxol sëñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy daara dar Tarqiyyah di ko ziyaare baax di ko ñaanal eh, sëriñ Bachirou Mbackeem Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Amsatou Mbackeem sëriñ Chouaïbou bu ci taxawaay bu am solo bi am ci xes yi ñoom ñii sëriñ bi daf leen a woolu ñu def ci liggéey bu am solo fa ca Touba muy sëñ Saliou muy sëñ Ablaye eh, kon eh, loolu moo waral tey jii ci ñi féete Ndakaaru sëñ Xaadim ñëw teew si waaye sëñ Pape Ndiaye Kara mi nga xam ne nii jarbaat la ci eh, Cheikh Modou Kara xaw ma doomi nijaayam sax waaye moom it am na ab yaat am solo yu sëriñ bi defoon général ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ca ba ñuy door a door liggéey bi loolu moo waral ñu woo ko mu ñëw bokk ak ñun li nga xam mooy bi kon sëñ Jibril ma la bàyyee nga nuyoo day mel loolu buñ ko sofee ci li ñu war a waxtaane tey képp kuy topp di am bind boo mën a jël dëngmal ci bis ba da nga am itam bind bo meuna jël ci khasside yi ci ñu xamne serigne bi léppam moy khasside yi bañ nako ba waxal bopam ne sama karama sax moy sama mbindum loxo sëñ Jibril jërëjëf alaaji sëñ am mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لكن لساني وحلولا منه الحقد وجهله ذاكرا وشاكرا ابدا موكي جولي دي موكي mbokki السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñu ngi leen di nuyoo di leen ziar di leen ndokkeel di leen baalu àq te di leen baal àq di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mm-hmm. ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér suñu boroom dëgër tax dëgëral taxawaayam mm-hmm. wéral ay cëram te fekk fanam bu baax a baax a baax a baax yàgg fi mm-hmm. lool yàgg liggéey suñ Tuubaa ñu ngi ko koy ñaanal ci ñaanal kilifa diine yi nekk ci réew mi yépp eh, sëñ am yaakaar naa ne nuyoo bi mm-hmm. Mm-hmm. dama koy sof ci sa nuyoo bu matale bi rek mm-hmm. uh, di am mbégte ci ànd ci jataay bu mel nii ndax uh, waxuma la karaama yi nga xamante ni moom moo nekk ci xaside yi te Sëriñ Tuubaa waxal ko boppam waaye uh, solution yi àdduna daa nekk ci xaside yi àdduna bi saa ñu mosaan jaaxle sëriñ bi lañuy ñëw dellu ci xasida yi mm-hmm. la xewoon 1927 25 ñu jógee madinatu a fekk si ko fii mm-hmm. mu jox leen génn xasida seen aajo faju mm-hmm. kon yaakaar naa ne ñun bu ñu mënee toog fii Cheikh Mouhamadou Mountakha xam loolu doole benn ba ko ni ko ni ko ni ko ni ko sëñ Modou Kara di waxee maa ngi koy ziar bu baax a baax day wax naan waxuma la xasida waaye benn bayit sax ëpp na ci aajo mu ne man bu may dara di metti damay jël ak siin su tooy ma jël jenn tomb ñaan ca suñu borom teggil ma loolu mhm. kon pas-pas boobu fa la taalibe yi war a nekk ci xaside yi sëñ Tuubaa yi mm-hmm. Mm-hmm. nga xam ne wax waxuma la waxuma la ay bayit waxuma la xaside gi mm-hmm. waaye wenn bayit wenn sidda woo xamante ne leer nañu fa mu tegee sëñ baa ko fa teg rek yamut yamut ak dara ci àdduna kon nag li ci des mooy pas-pas yi te loolu la Cheikh Mountakha di def foofu mm-hmm. seeni ñëw nàmm pas-pas yi mm-hmm. gis nga suñu am mujaddid mm-hmm. day toll jamono joo xamante ni il faut que ñu àdduna bi dañ koy rénover ni ñuy demee ba pas-pas yi di di dàcc di jokk il faut ñuy ñëw te loolu nag leader moo ko mën te sëñ sëñ Mountakha c'est un c'est un ci lépp mbooleem lu mu mës a digle moo ci jiitu bu fekkente ne ab yar la akub taalibe amul kenn ku ko ci ëppale xam-xam noonu tarbiya bi noonu matale gi noonu te lum digle bu alal alalam du ko fekk kon nag koo xamante ne kilifa gu mel noonu suñ ko amee moom la àdduna bi yépp manqué mooy kilifa goo xamante ni la muy digle da cay jiitu di ko jëf boole ko xam ak maandu kooku nag bu ñu woowee mhm. digal ñu nit lii day nañ ko def mhm. loolu moo war a doon suñu suñu suñu njëriñ mhm. gis nga bu dul woon sax xasida yi moom rek si ni sellalee diggam ak suñu borom lu ñu digal dañ koo war a def te buñ ko defee aw yow lañ ciy fekk dëgg la kon xam naa ne <laughs> ju taxaw foofu rek di rafetlu yi tamit nag jataay bi mhm. di nuyu tamit comité d'organisation bi nga xamante ni mhm. foofu it bëggoon naa ca suñu ma rek ma beral ci mhm. ak sant ak ñaan suñu am satu mbàkke moom solution yi bu ndax dëgg yàlla gis nga euh, suñu am suñu borom du jaawale jëfi kenn kenn dëgg la te nag mbir moo fi waaye taxawal ngir suñu borom bis dana ñëw mbir moomu wuy si la loolu yi sëñ Abdou Lahad waxoon ni ah bu ngeen ñaan bu nangoo day sonal borom. borom su ngeen demee ba mënatu leen maa gis di may nuyu ciy fenêtre. Mhm. ak ak ak ay giri di dox sama diggante ak yéen na ngeen ko sante yàlla te xam ni yàlla euh, suñu borom may doxalee noonu. Mhm. waaye tamit si ñam sa yi tamit na xam ni. Mhm. lii day lam doon jëmbat di ko sax. tey ji àgg na foo xamante ni waaye na ko leer ni fépp fu xasida yi àgg journée xasida àgg fa turam dana fa àgg mhm. loolu rek doy na mhm. leneen lu mën a xew moom na jàpp loolu jàpp ni pas-pasam ak mhm. diggam ak Sëriñ Tuubaa lii nuy mu doon liggéeyal ci xasida yi Sëriñ Tuubaa fay na ko te bis bi kanam la jëm ñeneen ñi ci nekkoon ñëpp nag ak di ko jàppale ëhlu xasida yi yëpp nañu xam ni tamit xasida yi rekk moo fi nekk ndax moom la seen Tuubaa am dëgg la ñun murid yi tamit moom la ñu am te suñu digganteeg suñu borom it moo fi ne dëgg la tuwaasili aqlaami ilallaahi aabidan mhm. kon nag gannaaw loolu lépp am na nag mhm. nañ ci gën a góor góorgóorlu mhm. kenn ku ne xam ne bis bi sa bis la war ñu yem ci te xajut ci mbas mi foofu it wax dëgg yàlla am na ci loo xamante ni sëñ am balaa ñoo dugg ci waxtaan wi dinaa ko ci rafetlu ndax i tamit ñu nee mbas mi daa nekk ci àdduna sépp kenn ku nekk fa ñu ne nañ fa jàngee ña munta dem nañ fa toog jàng dundal ko ndax kii si barke xasida yi mu jóge fi ñu bañ ko yamale Touba yëpp nañ ko tas ci àdduna si yëpp te loolu sax gaa yaa ngi kër sëñ Touba yi nekk si àdduna yëpp ngi yëngu mhm. fenn fu nekk nañ ko fa yëkkati barkeeloo ko fa mhm. yëf yi gëndaloo mhm. daj àdduna suñ borom defal ñu sutura defal ñu tawféex feebar beeg wopp bi yëpp jóge fi si dëgg la balaa ñoo dugg ci waxtaan bi bàyyee ak gaa ñi jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Jibril euh, ci euh, nuyoo bu am solo boobu dafay mel ni daf ñuy daal di dugal coow rek ci waxtaan wi euh, ni ki yéex gi nu yéex door waaye nag ba tey dañ ko dabaatal ci biir jataay bi loolu lépp dafay tàbbi rek ci yërmande yi sëñ Muntaxa mhm. ak compréhension ak xamam àddinaam ci euh, doomu aadama yi ak bañ a teg benn nit loo xam ne ni dana ko gàllankoor ci digganteem ak yitteem mhm. yooyu yëpp nañ moo tax ñu ñu war ko gën a ñaanal sax suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér waaye ni nga ko waxee rek si ci sëñ Amsatu mhm. taxawaay bi nga xam ne am na ko ci xaside yi noonu la valable ci euh, ki nga xam ne ni mooy sëriñ euh, Youssou Diop tamit ci taxawaay bu am solo na ko wax dëgg ak mboolem ñi nga xam ñoo ŋànk liggéey bi danañ ci ñëw léegi eh, sëñ Xaadim damay tàmbalee jataay bi ci yow xam naa nuyo bi dama koy sof ak question bi eh, mu nekk loo xam dañ koy dañ koy wéyale ndax tey jàpp naa ne eh, kàngam yi fi daje tey kenn ku ci nekk yaa ngi yor lañ boo xam soo ko génnee nit ñi danañ ci jariñu ñi ne ci réew mi ak ñi ne ca bitim réew loolu nag jàpp naa ne lu am solo la période bii ñu yëkkati ko su demee ba la fay mel ni la sëñ Moussa Ka waxoon dafa del si ci jamono ju ñu toll fa kaabun waa hathaan wa bu seyru bañ demee la Cheikh Bamba wax yoon nen lu tax ñëpp ñëw Touba la Cheikh Bamba wax yoon nen lu tax ñëpp ñëw Touba. Mhm. dafay mel ni kon buñ demee ba ne sëñ bi nee na woote na. Mhm. kon day mel ni ñoom bañ demee rek sëñ Touba jaajoo na ci yonent bi loo xam ne nii tey moo waral ñëpp dëgmal wutali wutali wutali dëkk bu sell ba. te lañ waxoon damay wax naa ko léegi bi may ñëw may xalaat ma ne buñ ne woon rek ñun ay jullit lañ waaye sëñ Touba moo nu waxal li yonent bi rek war nañoo wëri sëñ Touba noonu. bu ne ñun ay jullit mhm. waxal nii yonent bi. moo nu ko melalal nii mm. war nañ koo wëri nag wax dëgg yàlla ndax ah. nun kenn xamu ci Bou Seydi kenn ka xamu ci Kamb te kenn ku ci nekk ci tagg ak way ci nga ko xame ba tey mu dugg ci soxol ngir lu mu wax xanaa war nañ ko mën a yaatal place boobu ci sëriñ bi sëñ Xaadim ba moo la bàyyee nga nuyoo euh, ginnaaw boo nuyoo damay saf ko saf question bi rek ci logiquement rek xel mënul nangu contexte bi mu ko doon bind rek ak aajo jeek ak soor gi mu doon sóor jàmm si ñu jariñu ñu tey ak ëllëg sëñ Xaadim micro bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa nuyoo bi moom dañ koy tàmbalee ak émission bi rek. Mhm. Eh, di lu nuyu baax sëñ am ci jataay bi ak taxawaay bi sëñ Jibril eh, sëñ Abdoulaye Bichri di mhm. borom xam-xam mhm. ñu rafet lu xam-xamam di ci bu baax a baax eh, ndax xam na nu mu sëñ Saaliwu Euh, sàmm moom it di ay borom yi xam-xam dëgg la saa yu ne ñu leen topp di jariñu ci ñoom mhm. di nuyu baax sëñ bi ñu dendal sëñ Pape Ndiaye waaw mhm. tubarkàlla mhm. waaye di nuyu borom kër gi sëñ Bakk yi fay di nuyu suñu kóllëre bi fi nekk sëñ Ablaye Diop eh, ndongoy ndongoy ñi nga xam ñoo fi nekk yëpp waaye di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te waaye di sant bu baax ni ngeen ko waxee ku ci mel ni sëñ satu mi nga xam ne moom ci xas yi la doon yëngu sëñ Jibril wax na ko waaye mbir moom noonu lay demee rek euh, boo xoolee Serigne Touba li muy wax mbiram. Mhm. mu ni samay mbir boo koy tàmbali. Mhm. Euh, tàmbalee ko ci kaw. Mhm. xamal ni duma ci ànd. sama mbir ci suuf lay tàmbalee. te loolu euh, misaal mi mu ci joxe woon Baye Saliou ku jege woon sëñ bi la ku yéeme woon. ne sëñ bi da ko mos a yónnee ay mburu mburu mburu mais bi mu ñëwee mu mu jënd mburu mi di ñëw. mais bi mu ñëwee ba jub sëñ bi sëñ bi ni ko Saliou mun ko mbàkke mun ko dellool mburu m fa nga ko jëlee woon. ndax yow ba nga demee saam ya fare kaw nga jël soo demee na nga ko fa teg jël saam ya fare suuf ni ko xamaa xanaa xamul sama xanaa xamul lu jóge kaw lu ne suuf la jëm te sama mbir suuf lay jóge jëm kaw mhm. lool lool lool sëñ mbiram du yor misaalum béjjén mhm. béjjénum nag boo xoolee li dara ci bopp bi mooy gën a yaatu lu muy gën a dem di gën a sew loolu du mbirum sëñ Tuubaa xam nga luus mhm. kuddu luus kuddu luus mbirum sëñ Tuubaa noonu la mel soo tàmbalee mu sew lu muy gën a dem muy gën a lam soxla faaw nga dem baag <laughs> loolu mooy mbirum sëñ bi waaw noonu loolu day wane day wane rek ni mm-hmm. sëñam sutu mi doon wax ay mbiram sëñ mm-hmm. sëñ xam sa mm-hmm. loolu loolu laa wax ci kii ci mbir ndax man ba koy xam lu yàgg-yàgg la boobu mu këram gii ci Daaru Xuddoos xam ne su musaa ñoo ànd ak benn taalibe eh, sëñ Saalu eh, sëñ Moustapha Saalu eh, muy taaligee ñu ngi koy nuyu baax Tuubaa la dëkk mais dafa nekkoon Kayaar jamono yooyu sax boo am na boo ñëwee doo ko mën a gis da ñëw ñu toog ci saal bi lu yàgg bu ñëwee toog yow wax ak yow li ñuy wax yow dugaat ci biir ndax boobu foo ko fekk nag boobu jukki xasida bi mu ngi ci loxoom mhm. waaye nii rek lay dem sëñ Tuubaa am kenn ku ne lam la sédd rek ngay def kon di nuyu sëñ Yuusu Joob it ak mhm. eh, kuréel yi nga xam ne ñoo ngànk liggéey yëpp mhm. waaye eh, li nga wax ci mbirum sëñ bi xam nga sëriñ bi xasida eh, xasidaam yi nga xam ne moom da ko bind mu nekk ab liggéey ci moom ba liggéey bi sotti kenn ku nekk ci ñun su amoon kër ñu jox ko pàkk mu liggéey ko ba kër gu rafet mhm. dana ko fonk mhm. liggéey bu sott bu nek borom dana ko fonk moy mhm. xassay xassay yi touba yi yamul da ko fonk motax ken mën ci dugg def ci lu neex ndax mag ñi nekkon ak sëñ bi sax leen waxtu yi ñu toll am na xasida yoom mën nga mën nga ko mën nga ci am témèr ta mag ñi nekkon ak sëñ bi xassay yu dund nak ak touba ba joge fi mus na tek bat bët kon sëñ bi dafa fonk liggéeyam waaye boo xoolee sëñ bi ni ñu koy indee misaalam ci wàllu xas li ni mu doon liggéeyee ni mu ko doon bindee ak ni mu doon doxalee da koy indi ci wàllu misaalum alxuraanu karim mhm. sëñ bi noonu la koy ràbbalee loolu nag ndax bu buñ la indilee tey ci sëriñ bi la mus a gisee koo xam ni dafa tënk dundug yonent bi sallallahu alayhi ci ñaari bayit mhm. loolu mu ngi ci mawaahibu mhm. dem na sax ba tënkaat ki ci wenn bayit ci raay ya loolu dañ ci ñëw nga xam ne ràbbaleeg alxuraan laay wax in raama ilman aw raama ilman in raama ilman aw raama gunman aw raama daaka yuhda wa daaka yuhda lahu wayruda taabi soqaay fi ne loolu boo ko boo tojee bayit wi sëñ bi bayit wi da ngay firi baat ci kaw ci bayit wu jëkk mu firi ko ci ci bayit wu mujj wi loolu alxuraan day ràbbale noonu kutiba aleykum اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه بيمي واخ لولو غيسغا بيمي واخ تي وصيه دا فا اندي كتب نايو فايل موي نيو تا موي وصيه تي سوف كتب عليكم الوصيه اذا حضر احدكم الموت غيسغا دا فاي دا فا جيتال فيل جي دم موجي دم دم جيتال دا اندي فيل جي جيتال مفعول به جي تك تي فايل جي kon ku ne xam na ni fiil faayil maful mbii mo ci topp intaraka ahadukum al maut door a indi nag benn jumla bo xamni jumla shart la mooy intaraka xayran gis nga bokuy firi da nga na kutiba xam nga wax ji nim tagalo kutiba alaykum iza hadara ahadukum mawtu intaraka xayran al wasiya wax ji nim tagalo pour nga pour mo leer ci yow kutiba alaykum al wasiya waralef na ci yéen al wasiya muy dénkaan mu ni isa xadara al mawtu ahadakum bu kenn ku ne ci yéen bu leen dee dëkkalee may nañ la nga def wasiya bu fekkente nag charte bi mu indi sart ba mooy in googu in taraka xayran bu bàyyee alal ju bari xayran jooju firiwu yu alal ju bari lay firi noonu alxuraan ràbbalee noonu moo am ci bayit yooyu ma la wax in raama ilman aw raama xulman aw raama zulman baaqi liqaay fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda loo wa yurda sabi in raama ilman fa zaaka yuhda gis nga aw raama xulman wa zulman ba wa zaaka yurda gis nga kon ni mu andilee ràbbale ñaari bayit yooyu tënk na dundug yonent bi ci ñaari bayit ndax dundug yonent bi génn loolu waaye boo demee ci raay da ko tënk ci wenn bayit loolu it daf ko dina ñëw ci alxuraan. waaw alxuraan dina waxe noonu. suñu xoolee xaa saar yi gën a gàtt ci alxuraan. soo jëlee sootu lixlaas ca la bokk. sootu nasi mu isaa jaa ca la bokk. maanaam euh, innaa a'taynaakal ca la bokk. wal asri ca la bokk. yaa ngi dégg. kon saar yooyu ma la wax saar yi gën a gàtt nañ jël wal asri. alxuraan bi muy wax ni wal asri innal insaana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri ñetti aaya la wal asri rek aaya la ñu ni yàlla dani giñ naa ci tàkkusaan ñu ni giñ naa ci jamono ñu ni dani giñ naa ci jamono ji yonent bi doon dund jamono jooju laa doon giñ waaw waaye giñu ma ci yeneen jamono inna insaan la fi xusrin muy ñaari aaya nit mu ngi ci perte léegi nañ jël aaya bu mujj bi illa alladina amanu wa amilu salihat watawaasaw bil xaq watawaasaw nee naa nee naa leen aaye boobu bu fekkoon loolu rek mooy alxuraan alxuraan doy na sëkk. aaye boobu aaye boobu laa wax. alxuraan gis nga da lay surtout Fatiha. ba Baqara wàcc ba ci naafi. saar woowu mën a wax wala asri. soo jëlee ñaari aaye bàyyi ko. bu mu bokk sax ci alxuraan bu la neexee. aaye bu mujj bi illal ladina amanu wa amilu salihaat watawaasaw bil xaq watawaasaw sabri lépp daje na ci. kon yàlla tënk na ci lépp. ndax illal ladina amanu ngëm dugg na. ak tawxiid muy benn wa amilu saalihaat jëf yu baax yëpp dugg na ci kon sharia dugg na wa tawaasaw bil xaqi xaq dugg na wa tawaasaw bi sabri nii jëflanteeg nit ñi ci àdduna dugg na jeex na loolu mooy alxuraan di kon ngëm yàlla ndax iman islam ihsaan xoola aaya boobu rek sëñ Saalum maanaam bu mujj bi rek nga bàyyi ñaari aaya yi te bokk na saar yu gën a gàtt ci alxuraan mhm. loolu rek doy na yàlla tënk na ci alxuraan lépp dugg na Mhm. nan dem ci dund ni sëñ bi tënkalee loolu mhm. soo demee ci raay yi dama ne ne ñaari bay la sëñ Tuubaa wax tënk ci dund yonent bi nga dem ci raay mu tënk mu tënk ko wenn bayit kiltaa yadayhi laa saayun tulaazimuhu batalun wa bahlun ba basun liman laa noo mën jaaro jeex na sëñ yonent bi sa alayhi wasallam ñaar doon jëflanteel maam dafa bi mu nekkee màkka ay dëkk dëkkul ak naafiq loolu faaw ñu bàyyi xel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam diir bi mu nekkee màkk ba ni mu fa jógee amul am naafeq bu yont bi dëkkal ñaar rek la dëkkal ab julit akub yéefar waaw jeex na bi mu ñëwee Madinatu Munawara ñii la dëkkaloon ab julit akum naafeq la dëkkaloon kon naafeq amul woon màkk naafeq Madina la am léegi nag boo jëlee naafeq yi jël yéefar yi boole leen benn barab ñoo am ci yonent bi salaa salaam ndax gëmuñu ko toppuñu ko te dañ ko doon yàqal te yonent bi ñaar loon jëflanteel ki nga xam da koo topp la mu doon jëflanteeg moom mooy saxaaba yi mu jullit yi ak ki nga xam topp ko la mu doon jëflanteeg moom loolu mooy ak dundam moom la Sëriñ Tuubaa tënk ci bayit woowu noonu ya alxuraan tënke wala asri bàyyi ñaare aay yëpp bu la neex bañ koo wax jël aay mujj mu tënk ci alxuraan jëpp tënk ci àdduna jëpp ba mu jeex noonu la suñ tubaar mel ci yonent bi tënk ko ci wenn bayit moo tax benn naar nee na xawma ku mu jaaxalul day waaye jaaxal na tàggkat yi ñu ne ko lu tax mu ni ndax ci leen mos a gise ci nit ku bind tënk dund yonent bi ci wenn béy Sëñ Tuubaa leen ko mos a gise kon loolu laa lay kon bindu Sëñ Tuubaa bala nga koy bala bala ngay xam kiyam dëgg-dëgg nga xóot ci alxuraan subaa yi ngay xam Sëñ Tuubaa ni muy tàqalee mbiram ci digganteem ak alxuraan ak digganteem ak suñu borom te beneen bi nag jëf ju nangu la nag mm-hmm. jëf ju nu nangu nag moo neex a ñaane waaw fi ñaam dëgg la jërëjëf sëñ Xaadim euh, ñu sant ko bu baax a baax euh, yaakaar naa ubbi bi rek mën na sëkk euh, sëñ Jibril ma bàyyi la nga dugal nga dugal sëñ Saaliw digal sëñ Saaliw wala sëñ Ablaay rek mhm. Mhm. jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Xaadim mhm. ubbi nga ubbi nga lu yaatu te laytaay nga jataay bi laytaay bu am solo xam naa sëñ am balaa ñuy ñëw rek ni ma ko waxee woon ci tamit ci sëñ sa Mm-hmm. noonu la valable ci sëñ yuus mm-hmm. wala boog noonu la valable sax ci kuréelu isbu tarbiya ñëpp rek mm-hmm. waaw ndax ñoom it wax dëgg yàlla liggéey nañ bu baax ci xasida yi si di ko ñoŋal ci delloo si daaju mag yi ci di ko jàng ndax wax dëgg yàlla yoonu murit wi bu amutoon bu tarxiya maanaam dina mel ne ataaya ju amul naanaa <laughs> kon nag ñoo ngi leen di ndokkeel ñoom ci seen taxawaay ak nii ñu def xasida gi waaye lépp rek sëñ Muntaxa la la nii mu leen boolee nii mu jëlee ndax ni ñaan ñi ñëpp ñu ngi liggéey ci xasida mhm. mu jël leen boole mhm. yi tamit nag sëñ Youssou ci tawféex gi mu am mhm. ndax wax dëgg yàlla mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñu ngi ñëw ñu ngi loolu lépp yi tamit ku ne xam nañ sëñ Mountakha li ma ko waxee woon ci c'est la kon euh, na ko suñu borom borom jàppale ñoom ñu ngi leen di ziara waa Hizbut Tarqiyyah communauté scientifique beeg ñoom ñëpp ñu ngi ci ànd waaye dama xamul ndax sëñ Ablaye laa ñëw wala sëñ Saliou sëñ ah? waaw waaye naa leen naa leen jàkkaarloo ñu ñu def ko nii. ndax daa dend ak sëñ sëñ sëñ sëñ mhm. man fi may waxee mooy daanaka li ma tàmbalee sëñ sëñ Saliou xaside yi fan la ko sëñ Tuubaa tegoon ak jëfa jëfee xaside yi ak warmaal ko jëfandikoo ko lan la mën a def ci taalibe yi. auzu billaahi mina shaytaani alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diini ñu ngi sant yàlla di julli ci sayiduna muhammad di feddali suñu kóoruteef ci Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi balu xàq ñëpp di leen baal di ñaan yàlla boole nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Cheikh jëmb ak képp kuy sol sa dara te lislaam tax laa jóg Euh, di ziyaara bu baax mboolem koo xam ne yaa ngi topp jotaay yi waaye di jiital ci ziyaara bi ki sëriñ bi jiital ci liggéey bi muy sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ Suwaybu ni ko sëñ ci bi waxee léegi ak sëñ Amidun ak sëñ Xaadim noonu rek la demee ba mu ci ne da cee newoon rek te yàlla tax mu japp xasida yi borom Tuubaa yi. Mhm. tek ko fi mu ko tek mhm. di ko dundale ni mu koy dundale te sóorul woon len lu ko ci fekk. serigne bi nag boo demee ca tar ca muqaddimat euh, ndax joxe day haaji amna am na fu mu wax ni man xara albaaba wala wala jë wala jë wala jë waaw sëñ Xamsatu mhm. nga japp ci kaw sëñ Xamsatu man na firibat bobu ndax ba muy ne ci xasida yi njortuloon ni la maam Thierno Ibra Faty waxoon nii damaa damaa li ma jàppoon ci sama bopp mooy satal ak borom Tuubaa deram bi du yàgg ba ma dem du yàgg ba ma am ci ku ma aw. Mm-hmm. waaw kon kooku ba muy ànd ak sëñ bi yàllaa taxoon. Mm-hmm. sëñ sa Todd bi muy engagé wu ci xasida yi. Mm-hmm. du woon lii xew tey. xaaru ci woon lii. da cee da wu woon rek. te sëriñ Tuubaa tax. moo ko ci may lii ko ci fekk. waaw. Euh, léeg-léeg nag ma wax ko euh, bu nit di jëf nga toog di ko xool bis buñ koy gërëm bàyyi lañu ñu gërëm ko rek waaw noonu la demee ci sañ am sax xasida yi mm-hmm. xasida yi nag euh, du waxi ay Saliou Samb am na parole boo xamante se nii mm-hmm. parole bu oyof la mooy parole Saliou Samb waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ne lu waay di def ci xasida mm-hmm. sëñ xam satu nga ciy dimbili te bi mu koy wax mooy borom Touba doy na doy na loolu suñu xam ne loolu doy na ko sëkk sëkk sëkk lu mu mas a sonn ci xasida yi baat boobu suñ tubaa seeral ko doy na lu waaye di sonn ci xasi di def ci xasida yi xam satu nga siy dimbali nuy ziyaara Cheikh Mouhamadul Basir moom sëñ Abdou Khadir bu baax a baax moom it ci liggéey bi waaye di ci ziyaara sëñ Youssou Diop ak mboolem kuréelu Hizbu Tarqiya ni ngeen ko waxee rek noonu la demee ñoom duñu ñu mën a ñàkk ci yoon bi Hizbu Tarqiya ñoo ñàkk ci yoonu murit seenu taxawaay Da mel ni fàgguteef leen goog sëñ Tuubaa moo ko fàggu teg leen ci wet gi mm-hmm. waaw ku dem ba yegg ci ñoom rek te xam dara ci sëriñ bi nga xam ne ñii duñ ñu mën ci yoon mm-hmm. sëñ bi nag ñi mu àndaloon sax ci bi nga xam ni mo ngi fii nekk mm-hmm. ñu leen di tudde seex ñii ñu leen di tuddee rak kenn ku nekk bu option bi mu yor génnaan da ngay xam ni kii mënut a ñàkk ci sëriñ bi waaw sëñ Tuubaa noonu la ko yàlla defalee ay fàgguteefam kon ñoo ngi leen di ziyaara bu baax. Mm-hmm. di ci ziyaara sëñ Xasan Mbuub. Mm-hmm. di la nuyu bu baax sañ Amidou. jërëjëf di nuyu sëñ Jibril. Mm-hmm. di nuyu sëñ Xaadim Njaay Kayaar mu baax mi di ko di ko sant tey rafet lu kàddu yi. E, yi muy wax ci ñun ci moom rek la ne. ñun ñii ñoo ngi jariñu ci moom bu baax a baax. di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam te wéral ko. sëñ Abdoulahi Diop Bisri moom it. E, noonu ma ko waxee ci sëñ Xaadim noonu la valable ci moom ñoo ngi jariñu ci ñoom bu baax a baax. ndax ñu yee mhm. dongo yi lañ mhm. di leen dimbali ci sëriñ bi mhm. ak œuvre yi sëriñ bi li nga ko waxee ci émission bi di kenn du sëriñ bi rek ni mu ciy def di ko def ci xasida dëgg la wax dëgg yàlla képp ku bëgg sëriñ bi bëgg xasida yi moom ko ciy bàyyi xel yàlla na yàlla gudd fanam nuyu sëriñ Pape Ndiaye Kara mi moom it bu baax di ko ñaanal yàlla mu yokk ko waaye di fi jaar di nuyu sangam ba Cheikh Cheikh Cheikh Ahmadou Ousmane général te ñaan yàlla mu yàggal taxawaayam waaw sëñ sëñ ji bi xasida yi moom. Uh-huh. Ah, nu ne mën nañ ko koo tudde mën na noo wax ni mooy sëriñ. mën na noo wax ni mooy jubluk sëriñ bi. Uh-huh. maam Cheikh Ibra Fall sax wax nañ dafa waxoon ni mooy tànki sëriñ bi de. Uh-huh. te boo toppee tànk te dëppoo da nga mës a gis jëmm. wax nañ ni am na ko mës a yor xasida ñëw ci maam Cheikh ra mu laaj ko ko mu jox ko ko. nañ ni mu ubbi xool. tëjaat fóon ko delloo ko ko ni ko na nga ko fonk ndax mook alxuraan a bokk fu nu bawoo te moo fa mujj a bawoo aktubu naaxilan min lawxihi alxafiz aktubu naaxilan min lawxihi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin maam Seex Faal la ko wax ci wolof waaye Sëriñ Tuubaa wax na ko waxal na ko boppam nee na falaa falaa toxale ca alluway maxfuus laa toxale te la quraanul majidun fi lawxin محفوظين من اكتب ناخل من لوح الحفيظ كون خاش دي فوفا لا بابا كوم فوفا لا بابا نا كي واخ ني فلا توخلي سو واخي ني لوبي منور بنور الوحي كوارس نكو مانا گم ndax fofa la fa bawawon di ñew ci yonent bi waxyu la tudon te wax yu yonent lañ koy def wala yu dañ koy ilham waye ki wax ni la alluway maxfuus la toxale mo wax ni lu bi sama dënd bi mu nawarun bi nuril wahyi yàlla ko léralé ci leeru ci leeru wahyu wax ni wa khad li khayru ulumil mux yi sans borom andil na ma ngeen ci xam-xam manam maanaam matal na ma matal na ma ngeen ci xam-xam la ko jiitu sax mooy isa katabton tazza arsul baqi sumay bind aras day baj baji day yëngu wax sa baxat muy sabal malaa ikut tibaax yi waaw koo xam ni sa xalima rek mbooleem yiw yi sa xalima day taxaw seen daraja buñ tegee mbooleem yiw yi ci balance teg sa xalima ci balance sa xalima wat mbaamu tolloog ñoom daraja iji alxilaami yaa sakuru qaaima maqaama jumlatil xuyuuri daaima la wax ku sa xalima di toll di peser mbooleem yiw yi mbooleem lu baax yi bu ko sa xalima di poser booy bind mu war a mën a yëngal aras kon isa katab tonta arsul baax yi lu war a mën a nekk la ndax lee moo koy waral na doolay xalima ji toll na doolay daaja toll di mhm. jaxal mi daal di kadimaay suada mhm. suñu tubaab wax na ni sama daaj yi na ko def mu mel ni yi ñi ñi ñi daanu ci xare mm-hmm. te ñu wax ni ñooña seen puuritu gémmiñ ñi pas rek moo ëpp doole wëlli moom mu wax ni daaxam ji na toll ni seen deret ya mm-hmm. kon xasida leneen la loo xam ni mm-hmm. ci beneen programme la nekk waaye su fekkee ni wax yu yonent bi lañ ko daan def yonent lañ ko daan def yàlla waxoon yonent bi ci jamono bi mu koy wax yu ni ko sa ndijoor bi bu ci bind sama alxuraan ji wala taxutxu bi yaminika sa ndijoor bu ci bind sama alxuraan ji parce que jamonoy poésie ci la yonent bi ñëwoon poète dafa doxoon booba ñépp mën a wax alxuraan xëy war a ñëw bi alxuraan xëyee war a ñëw kiñ ko wara jaarale ci mom su mënee bind wala mu mën lire da nuy japp ni. moko bind. moko créer hmm parce que comme jamono poète la nek kenn ku ne mën wax mom yalla day waajal kok mënta bind mënta liir. Mm-hmm. nabil mm-hmm. ummi la waajal. wacc ci mom alquran ji ba pare ni ko bul mën bind ci sa ndjor bi wala ta khurtu xu bi yaminika. Mm-hmm. Euh, sun borom mën programme. alxuraan ñëw. ñoom ñu nga xamni ay poète la ñom ñëpp bu ñu won seen xel yi تلك الخوارق ما زالت تؤيده إذ لم يزل قله يأتي بالآيات حتى أتى بكتاب عاجز البلخة بمؤن في تيري بوخمني لطلنا برام بلاخة عاجز البلخة وكل عن مثله لطلنا كل ملني موم أهل الفصاحات يمنا واخ نيب سنين دجوان واخ واخ واخ بدا جلي من يوجين الملني بأن آيب القرآن يالا نيكو بول من بندي كسان ديور بي نيوتو جني أتاك نيات تيمير كي بن خشيد ينوني يميني عليها دين قتن قواردا ولا تقته بيمينك بل ما نبي نتسن دجور بي كني يميني سمن دجور بي عليها دكي قالو دين قتن بورك من واخول دما ورا بند واو واخول دما ورا بند واخول لي داني بور دينو فوني كو لبي وون كون لا يونن با ويول وون تا خامني بندت الحرف تسود نيب لولا تخ مو ويلو سيرن توبا لولا باي موسى كو واخون جمو خاتمات ولا فم موي wala taqutuhu bi yaminika ak yamini alayha daynu xattin xawaaridan mhm. bi xidmati xilli zil madinati zahadi mhm. xasida yi nag li nga wax sañ jëli ni nu ciy jariñoo koo xam ne léppam njariñ la nu nuy jariñoo ci mbiram yomb na fi mu toll jëf ju seytaane génn ñu gaaw koo mën a jariñoo maanaam gépp jaamu yàlla gu seytaane génn mhm. jariñoo ko yomb dëgg te moom moo wax ni haraba min si'riya iblisul marid sama way yi buñ koy jàng iblis day daw haraba min si'riya iblisul marid mhm. wa bi qasaa'idi yahdiyal murid dégg nga mhm. bu fekkee ni ñoo ngi jàng xasida yi bu iblis dawee xasaa yi yooyu ñuy jàng day daal di jubbanti ki mu nekk parce que bu fi iblis nekkatul rek jub yomb mhm. mu wax feneen ni iblisu farra shakiya ila siwaaya baakiya iblis day day day daw farra di jooy di jàmbat iblisu farra shaakiya ilaa siwaay jëm ci kudul man baakiya di jooy lu kañ mu ni musarraqati naakiya ku la xarurin fati kon nu nuy jaar jariñu xasida day yomb na bi si gën a yomb mooy jàng te sellal bu fi iblis nekkul nga mën a jàng te sellal te boo jàngee te sellal jariñu ndax wajaal tawaalifiya bil muxtaari zunnata kulli xaariin annaari yàlla maa ngi lay ñaan man Cheikh Ahmadou Bamba nga def sama taalif yi ci darajey Sayyiduna Muhammad mi nga tànn mu doon pakk ci sawara ci képp ku jàng kon lim mën a njëkk a def moom xasida mooy teelaa dem sawara tere la dem sawara la khassida njëkk mën def luy teree dem sawara jëf ju baax ju jot ju yegg baat bi gën ci baat yi yonent bi neena kuko ku wax te selal ko danga dem aljana muy la ilaha illallah mu ila tawali fi fii yaxuudullaahu asraara ilaha illallahu ndekete da ngay yor khassida di jang waye waxo baatu la ilaha illallah mais wax nga ko ci khassida ngay jang ndax ci la yalla womat motum la ilaha illallah dugal ko ci te ku wax la ilaha illallah te mu sel nga dem aljana kon kay euh, aljana ju adu ñu koy waxati laaxira ju jag lanu njëkk xasida njëkk a jujak laaxira ju jak ëllëg ju jak waaw waaw ëllëg ju jag lanu xasida njëkk a indil fii muy jagee fii àddunaat mu wax nu sama xasida yi dina tax mbooleem xéewal yi di bàyyi ko fu nek te du ngeen sonu yeen ñi koy di leen ñëwal يقود لمنافع البلدان دينغ وهبي يقود لي منافع البلدان بولم نجارني نجارني يجوك كيانن ريوي دين دين دين دين سمرت الجيم تمان من أحمد بامبا يقود لي منافع البلدان قديا بلا أذن من الأبدان قطية بلا أذن من الأبدان يأخذ لي منافع البلدان قطية بلا أذن من الأبدان دينغ njariñ yëpp dina ñëw sëñ Tuubaa nee na bilaa azin minal daani benn coono benn lor du am ci seen yaram fi mu toll kuy jàng xasida koo xam ne jàng xasida rek ay mbiram da ngay gis ay aajoom di faju te doo ko fekk muy sonn waaw mooy xattiya bilaa azin minal abdaani sa yaram du yëg benn lor ba pare njariñ yëpp di ñëw mën aa fenal bul daani fu ne xéewal di fa bàyyi ko di ñëw loolu nañ ko natt ci tubaa Mbacké Touba Mbacké nga nga xam ni fa la xasida yi dëkk xéewal ya ñëw du xéewal yu ànd akub coono mm-hmm. kon xam naa ba ci kanam Eh, ubbi nga bunt bu rëy rëy rëy rëy eh, macha allah ndax eh, fi nga daaneelee dafa ubbi bunt waxtaan bi mhm. xam naa war nga noo ñëwal sax ndax sëñ Touba dugg nga yër nu nga tuuti rek da nga da ngaa yërndu da ngaa yërndu ma siyaar rek génnaat waaye dinaa la relancer même question bi ci li gars yi doon nettali ci ay xawaarex ci histoire ak histoire sëñ Touba da ko ràbbe ci biir ay xasidaam ci yonent bu nekk alayhimu salaam eh, fa ñu fa ñu kalee fa leen yàlla kàllarte ci barkeb yonent bi alayhi salaatu sant boobu ñëwul loolu lépp suñ tubaa rek ko indi ñu ko tëggal wayu neex mooy li ma wax léegi sëñ Ablaay ci yow laay ñëw ci suñu déggoon sax ñu ne sëñ tubaa Nigéria la dëkk te teñ dégg mu wax li mu wax yonent bi sax war nañ koo wari ñun bu dee ay jullit lañ parce que tey am na ñooñ way jël nañ seeni i way valoriser ko fii ci réew mi te koo laajoon seen i fu mu jóge waaye bëgg gënu bëgg yonent bi moo moonu may lan way mu neex nu ba tax ñu mu dugg ñu chaque jour saa saa nga gis waykat bu jël sax ab jàngkat bu jël jàng way woo xam ko ko way sax dëkkul ci réew bi waaye daa neex dama dem euh, madinatul munawwara ànd ak sëñ Abdou Samad mu sëriñ Chouaïb bu ñu gis fu bu sayri bind ñeenti bay yu neex mu ne ma foto ko lii neex na trop loolu la yëg-yëgu ab julit war a am ci ndeli sëriñ Tuubaa waaye tey sëñ Ablaay bu ñëwee ci mm-hmm. man na bil ilmi wal muna ma baqaa in billadi laysa yantami lin si laa bi li nga xam ne ni yàlla fàggul na ko ci loo xam ne dootul dañ nag dootul dañ est-ce que du tey moo poussé tey contexte boobu moo poussé tey Cheikh mun taxaa ci mu xalaat ni ci mu jàpp ni li sëriñ li sëriñ bi def ci xasida yi ci loolu mooy li am sax amul fenn fu ko suñu borom làqal biram ndax moom moo ne mooy sama kéemtaan est-ce que lim bind na sëñ Ablaay logique logique may na ko ko ak temps temps bu doy ak jot gu doy ak ñu ko ci jàppale. waaw kay jërëjëf Serigne Hamidou. nu ngi jiital sunu kàddu ci sant yàlla sunu borom. di julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam di santati Serigne Touba. di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ñaanal sunu wasiila. ñun dañ cee am mbégte ñaari yoon. ndax ki mu joxoñ jiital ko ci liggéeyu xasaayid yi. Mhm. Euh, fekk na ñun moom la ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira jébbalu ci moom. muy sunu bunt ci sëñ Touba di xam Hamza mu sëriñ Chouaib yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kàttan euh, li ngeen wax a ci nekk moom dafa gimmi rek nekk ci liggéeyu xasaayid yi moom mu sa nekk liggéeyam alquran xasida loolu rek lañ ko xamal di ko bind di ko jàngale di ko móol di neexal ña koy ña cay nekk ñi ko wër di jàng xasaayid yi sëñ Touba muy jëndi daamar di leen ko neexale mm-hmm. kon du tey jii lii nu ko jiital dafa jara xam ni lu jiitu moom la doon liggéeyal xasaayid yi ba tey sëriñ Tuubaa mi nga xam mooy sëñ mun taxa ni képp kuy jëf ci xasaayid yi moom nga ciy jàppale ndax da am xaas kon nu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di nuyu Cheikh Basiru Abdul Qadir mi yor kàddu yoon wi di ko ñaanal mucc ak fan wu gudd di nuyu sëñ Yuusu Jóob mu jiite is Hizbut Tarqiyyah am ci taxawaay bu am solo ginnaaw bi nga xamee ni jàmbaar ja dëddu na sëñ aatu Jaañ yàlla na ko yàlla yokk leer ak yërmande sëñ yuusu yanu ko yanu bu rafet nu ngi koy ndokkeel ak mboolem ñi ci ginnaawam di ko jàppale nuyu bu baax a baax a baax sunu soppe yi nga xam ni moom lañu séqal plateau bi sëñ Xaadim Njaay Kayaar ci xam-xam bu rafet bi ak yar gi ak teggin gi ak sell gi nit ku baax la koo xam ni lii may wax duma ci jéppi ndax xam na ni dëgg la jaxasoo nanu xam naa ko yàgg na nag ca rajo lañ jaxasoo woon muy nit ku baax koo xam ni lii muy jàngale noonu lay dundee nit ku sell la boroom xam-xam la bu am teggin mhm. ku yaruta fees dell mhm. kon bu waxee kàddoom bi rafet yi jëmee ci nun daf nuy soññ rek mhm. waaye yow sag nga ci yoonu murit sakk nga ci lislaam yàlla na yàgg lool di nuyu sëriñ Saalix sàmb di ko ñaanal mucc ak fan wu gudd muy jàmbaar ci yoon wi am na léegi ku may gis ci commentaire yi mu ne namoon nan ko murit yee ko bëgg ngir waxtaanam ngir njàmbaaram ngir gëstoom dëgg la waaye ngir fitam ndax sëñ Tuubaa soo ci wax da ngay mm-hmm. am fit mm-hmm. doo dellu ginnaaw kon yàlla ko yàlla sàmm ci barke sëñ Abdul Karim amiin te defal ko tawféex ci biir ak ci biti ci barke xasaayid yi amiin amiin di nuyu sunu soppe bëri sëñ Pape Ndiaye di ko yóbbante nuyoo ci généralu Serigne Touba sëñ Modou Kara sëñ mm-hmm. Ahmadou Kara Mbàkke Noreyni di la sant sëñ Hamidou sant sëñ Jibril Ndaw di leen béggee bu baax ci émission bii di diiwaan diwaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen bége euh, fas yéene ñëw rek ci sa laaj bi mhm. waaw nuyu Pape seex Bey jinne caméraman yi waaw <laughs> moo ñuy caméra fas ne ñëw rek ndax sunu daje bi dafa am lu ko yëkkati muy waajal la onze bi nekk ci sunu kanam mhm. tey ndigalu Serigne Touba. Mhm. te mu digal nu li gën ci nun moo nu digal li gën ci nun la gën ci nun mooy jàng xasaayidam yi ndax yi xasaayid yi làmboo te boole ko sëñ xaadim dafa ubbi léegi wax ju am solo euh, te ñu bëri mën na leen a raw muy sëñ Tuubaa dafa gën a xam ñëpp alquran dafa gën a dégg ñëpp alquran déggin googu mu gën a dégg alquran nag moo tax buy tànq ci alquran dina ko sottil ci ay xasaayid faaw xasidaam nekk mu'jiza waaw mu nekk kéemtaan bu kenn dul mën a gis feneen ci sëñ Tuubaa di nga koy mën a gise ndax fa muy tànqee moo ñu ko gën a dégg bu ko tànqee ba noppi li muy togg tamit faaw mu am cafka goo xam ni ku ko musul du ko xam te loolu xasida rek moo ko man ndax sëñ Tuubaa gën gee dégg alxuraan bëgg gi yanantu bi alayhi salaatu wasalaam day feeñ ci mbindam gën gee xam yanantu bi ndax bi sëñ Tuubaa ko gën a xam ñëpp loolu moo tax mbindum sëñ bi du niroog keneen xorom si nga ciy fekk cafka gi nga ciy fekk dégg gi nga ciy fekk nuroo gi muy nuróo ko waxi sunu boroom moom rek a ko man dinaa ci indi firnde ci dafa am bis mu wax sëñ Amsatu Jaxate radiyallahu taala anhuma mu ni ko Hamsatu mu ni ko Mbàkke mu ni ko sóoratu Zumar fële aaya bële wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumaran xataa iza jaahuha futihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha alam yaatikum rusulun minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yawmikum haza xaaloo bale walakin xaqat kalimatul azab alal kafirin mu wax ko aaya boobu ni ko lu tax foofu waaw ji duggul dégg nga xam nga bi mu ne wasiqa alladina kafaru ilaa جهنم zumaran xata isa jaahuha futtihat abwaabuha am nga foofu amul waaw wax waxuloo futtihat da di ko futtihat rek abwaabuha wa xaala lahum xasanatuha nga dem tuuti ñaareel bi aaya bi ci topp mu ni wasiqa lazina taxaw rabbuhum ilal jannati zumaran xata isa jaahuha wa futtihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha salaamun aleykum tibtum fatxuluha xaalidin sëñ Tuubaa déggam alxuraan mu ne ko aaya bii boo ko seetee waaw ji néwu fi aaya ji waaw jee fi nekk lana ko waral sëñ Amsatu Jaxate ni ko delloo nañ la ko xamuñu ci dara yow rekk a xam alxuraan mu ni ko ndax yàlla dafa jéppi yéefar yi ñu koy moy da leen a ngi bokkaale yàlla da a jéppi yéefar yooyu nag buñ leen chaîné ba jëmee leen jëhannama safara bu nu agsee ba war a tàbbi ci juróom-ñaari buntu safara yi mer gi leen safara mere te jéppi leen moo tax amul waaw abwaabu ha rek harek. yaay gaaw ni welbet uppi ko seen bop dugal dugal way way tooñ ya lii moo tax waaw la tax nak benen aya ba wasiqa alladina euh, taxaw rabbuhum ila aljannati zumaran ña nga xam dañu ragal seen borom buñ ñu leen defalee kuréel jëm aljana suñu ñëwé wa futtixat waw wi dug wa abwaabu ha day melni kon waw bobu waw buy préparer ñoña la li ko waral mooy wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwaanan wa ala surin mutaqabilin alxuraan la mu waxoon dañuy jël seen xol yi li ci waroon nekk ay kiñaan bëgg daraja ndax aljana nit mënu caa dëkk di iñaan moo tax nag bu ñu waree dugg àjjana faaw kon wafutixat bi li ko indi waaw bi yeexal leen ñoom ñii dugg àjjana dañ leen di jaaral ci dexu kaw fóotaat leen di leen préparer. Mhm. di leen toppatoo. Mhm. defar seen yaram génn yi indi keñaan ci xol ak yëpp ba ñu réglé. Mhm. yàlla doo leen tàbbal ci juróom-ñetti buntu àjjana ya muy waawu samaan ya jooju. kon na ngay xam ne sëñ tuubaak képp dégg alxuraan. man ngaa jàng ba jeexal téere mi boo ko firee bu la ko firilee du bokk. am na bis mu ni mag ñi. nan ngeen di firee waf'alul xayra la'alakum tuflihun ci ko sootul xaj. na ngeen di jëf aw yiw. ngir man naa am ngeen texee ca noonu arabisant yëpp noonu lañ ko mën a firee mu ne ñan a koy jëf ñu ni cell mu ni bind leen waf alo ñu bind waf alo mu ne ñaata xuróof la ñu ne ko juróom mu ne bind leen alxayra ñu bind ko mu ne ñaata xuróof la ñu ne ko juróomi xuróof mu ne yàlla dañu seen juróom-ñaari cër yi na sax ci juróomi ponk lislaam yi ba dee fekk leen ki ngeen door a tabbi gis nga kon dégginu alxuraanu sëñ Tuubaa kenn amu ko mm-hmm. maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaqi mm-hmm. halo arabi boo boko tegal mu jang arab ba jeexal téere yëpp da wax rek yalla neena li ci da fay jeex li ci man yalla moy dess biko mag ni firé non seigne touba ni firi ka gat tacate daa ni accam mag mu tol ni dina sakai ay jaamam jox leen seen xewal yi nu am yépp yalla leen ko may war leen a rey jaam bi di doye di mënut dara nu ko yàllay sakke ba noppi may ko xewal nan ko yow xewal yi mala may day jeex man yima yor moy dess di comparer bopam ak jaamam kon loolu yéen wut maanaam mhm. dafa wax ni maa indakum yan fadu maa indakum mooy la ngeen denc ci kër yi di ko korkoral ak ci banque yi di ko sakkanal mhm. yan fadu day jeex ndax su ngeen deewee tey tey balaa ngoon amatu leen ci benn wàll mhm. seeni njaboot a koy doon kon maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baax yi nag mooy lu baax li ngeen jëf muy ay tuyaaba mu ngi jiitu ci seen bàmmeel di leen xaar ci seen barzaq kooka du jeex mukk aji xaar lay doon kon sëñ Tuubaa dégg gi mu gënoon dégg nit ñi alxuraan laa bëggoon a préciser. Mhm. moo tax mu gën a mën a rafet rafetle bind ñëpp gën koo mën a rafetle ko mu doon. Mhm. te gën a dégg ñëpp. Mhm. nga laaj ma léegi ndax li mu bind. Euh, yelloon na. logique na logique na mënta logique at yi at yi ni mu gàttee dafa gàtt. mbind mi barkeel mbind mi barkeel bari. yaatu lépp xaj te mu bind ci fànn yëpp. te amul woon temps te bi te boole na ko ibadaatam yëpp. Mm. boole ko defari nit nag lu mat a xam la. xam nga làmmeñu arab wax na la alquran gën jee dégg làmmeñu arab it da ko gëna a jekku ñëpp ndax bu ñu fàtte ni mom yanantu bee ko tan rama rasulullah min ilahi kauni khadimuhu wa abdullah kon yanantu bee tan sëñ touba ngir muy khadimam waaw yanantu bi nak bu la tànnee faaw làmmeñu yanantu bi nga gën ko jekku ñëpp motax arab ni ko sëñ tuubaa amul ku njëkk amul ku mujju ndax neena na arab lañ ma womatal jox mako ma ci def lu ci kenn mënu mbindam tam fa mu koy jëlee kenn jotewu fa ndax moo wax ni lawhul mahfuz lay jëlee mbindam wax nga ko léegi aktubu naaqilan min allawhi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin damay bind man sëñ Touba di tuxale ca lawhul mahfuz boo ko xamul mooy téere ba yàllay bind yëf ya fa document yi fa mu ne fa yàlla denc mbiram yi muy dogal foofa ne lay tuxale sama mbind ak ci xalima sunu borom gi min xalamihi ni wo fi hurufi lam amin te li ma wax ci sama araf yi nekkul waxi neen wax ju dëggu la mu wat waxat ni kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabihun yaqilu sama mbind man seigne touba mang koy tukale ci lawhul mahfuz mu ni nak nag ku ngeen gis mu koy werante xam leen ni yalla yeewagu ko waaye képp ku mus dara ci nguru sunu borom ñu yela da nga xam mbind mi mom mënuñu ko bind ci aduna la mu dellu waxaat ci mbindam waj alxaraati sii bihi wa qalami xayra ibadatin wa xayra sulami yow yàlla nag ma defal sama waxuma sax mbind mi mais këyit yi ma teg xaraati si mooy ay xiirtaasam këyit yi mu teg war cee bind këyit yi ak xalima gi mu teg war koo binde muy big bi tey ak feuille yi na mel ni ngën gi jaamu yàlla goo nangu nekk itam ngën gi kuy yëkkati ab jaam di ko defal escalier di ko yóbbu ci boromam mu jote ko mu dellu wax ci mbindam tabasamal muxtaaru min jinaasi munzu bada bihi bukkal xanaasi su may mbind sama mbind mii ngeen gis saa suñ ko yëkkatee jàng ko iblis dafay jooy kon ndeke suñ mun taxaak ñuy woon ñëw leen ñu toroxal iblis ndax tey jii nit ñi seen xol yi ëmb na iblis ba suñu borom mere nu wàcce mbas kon nag ñëw leen ñu toroxal iblis. mën a dellu ci lu baax ndax nit dina dem ci ay tooñ ba dootul mën a tuub dellu ci boromam. ñëw leen ñu toroxal iblis mu jooy ndax saa suñu jàngee mbindum sëñ Tuubaa iblis jooy waaye yenentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di muuñ tabasamal muxtaar la wax day muuñ moom borom barrière or bi te bu yenent yu bégee rek yàlla indiwaatal nu jàmm ndax moom rek la xool mu dellu wax nu moom sëñ Tuubaa ba tey ci mbindam mu wa inda iblisa tafuqul muni mu bind da fay bekk lo yarantu yalla muhammad kon nak julit bu ne warna bekk lo yarantu ni muni ni sama bind moy sen ngannaay wala mo genn ngannaay bu ngeen di am ngir protéger sen digeunte ak shaytané mu delu waxat ci mbindam aqlami ila allah aabidan bila qalwatin wallahu abqa kama arma mhm. sama bind bepp jam bu koy jang te diko ko di nga dem ba àgg ci yàlla sa borom mi la sàkk te du jar ngay dugg xalwa mu dellu waxaat ci mbindam moom sëñ Tuuba kitaabati faaxat suyuuqa tarqiya wa kulla xayrin wa suyuuqa tarbiya sama mbind ca nooru daara yi moo féete kaw bépp yiw féete kaw mbooleem sëriñ buy yare ci yoonu yàlla ak sëriñ buy yéege ci yoonu yàlla sama mbind ko gën a gaaw boo ko sellalee mu dellu ci mbindam wax ni ilaa tawaalii yaquudullaahu asraara laa ilaha illallah yàlla woom mat na secret yi mu def ci laa ilaha illallah di baat bi gën a foor bu ñuy wax def ko ci samay mbind mu dellu waxaat ne ilaa tawaali fii yaquudullaahu anwaara laa ilaha illallah yàlla jël na leer gi mu denc ci laa ilaha def na ko sama biir mbind mi ma bind man sëñ Tuuba mu dellu waxaat ilaa tawaali fii yaquudullaahu tabshira laa ilaha illallah laa ilaha illallah nit a ngi téye kurusam di def 124000 ñee di def 313 ñee di def de nga 141000 nangam nangam mu ni matatut lolu selal ko rek ndax mbind mi dexeñ na ci lepp bo jappé ci sama mbind da ngay dem ba mujj gi mbekté mi yalla denc ci bir la ilaha illallah day mujj far and ak yow far ak yow mu wax mom sëñ touba ba tay ni wajal kitaabati la day ka kon mbind sëñ bi dafiy des waye baqiyat wa salihat nga xamni yiwu fi dess la nit ñi di jariño lo xamni la tazalu namiyat tasaalu deñ di développer wu day gën di fu mu toll ngir firndel lolu aljana lañuy wut ñun ñepp te mbindum touba ci la gëna gaaw dafa am bis serigne bi wo Cheikh Ibra Fall buba jàngkatam bu mag la won mu ñew serigne bi ne ko mawahibun nafi' fi mada'ihi safi' jang ko ma degg la Cheikh Ibra Fall di ko yëkkati sëñ Touba. day jàng ba mu yàgg rek sëriñ bi ni wëlbét daal di jël caabi ji ubbi baraagam bu nañ ko daj biñ ko dajjee lépp ay yére lañ ci ju sëñ bi ni ko fobal lépp yóbbu sëñ Ibra Fall buuba fob lépp sëñ bi ni ko dajjiwaaleel baraag bi boole ci demal dëkk ak moom xam ni kon ñun ñii ñuy def ak xasaayit moom sëñ bi da ko daan def mm-hmm. moom mi ko bind te wax na ni xëjat xasaayit yi xulóobal anbiyaa yi maal malaykati inda rabbiya sama xasaayid yi ni muy daanale sama taalibe yi ni lay daanu loo yanantu yi saa suñ ko jàngee Souleymane da koy yëg comme nun Yunus da koy yëg comme nun yanantu yàlla Muhammad daf koy yëg comme nun Daawda da koy yëg comme nun mu ni ak lan ak ay al malayka malayka yëpp ak seen njiit Seydina Jibril alayhi salaam dañuy bégge sama mbind man Cheikh Ahmadou Bamba am na ci bis euh, Serigne Hamidou mu toog di déglu ci genn keesam ndekete am na ñu fa taxaw di yëkkati mbindu sëñ Touba. Mhm. sëñ bi di leen teewlu ba mu yàgg mu fëgg nii ci sàkke bi daal ni ana ñooñu sëñ xaalisa yi mi ngeen xam ni ko nun la mhm. mu ni ko nun la day dollib laaj yéen ñan xaalisa yi ni ko xaalisa yi sa mas mhm. sëñ bi ni ak kan mu ne ko ak sëñ Mouhamadou Touré Kamado mu ni waaw ak kan mu ne ko ak sëñ Mouhamadou Lamine Gaye sëñ bi ne ko ak kan mu ne ak seigne Ahmad Tasrif Sougou seigne bi ne yene netali sama mbindi mi wiri len ma wax len dara ci sama mbind ba ñu ba ñëw toog seigne bi ne len mbindi momu jëndoon yëkëti man Ahmadu mako bind xam nga mbindi mi dafa gëna woor ndax seigne touba ko bind fi ne man nga top nit sax erreur am wala mu sank la waye mbindu seigne touba la sanko doo ko dégg ndax seigne bee ko produire artiste bi mom moy artiste bi nga xam mo produire bi tableau d'art sëñ ko bind. mi daa gën man Ahmadou maa bind. yeen ñi ko doon jang xam ngeen nu ngeen ci mel ak ñi koy déglu. nu ni ko bëgg nañ ko xam. mu ni am picc bu mag bu ñi wax njanaaw. njanaaw boko ko moy picc bu mag. mu man mi ko bind maa mel ni aw njanaaw. moy picc bu mag. yeen ñi koy jang yeenay lafi laaf ñi koy deglu di ci bekk sama mbind. ñoom ñooy dunq yi eh. daal ni ndax njanaaw li mën naa naaw dem bàyyi fi dunkam ak i laafam ñu ni ko déedéet mbàkke bàll mu ne kon sax leen ci di jàng sama xasaayid yi mm-hmm. su ma jógee man maay njanaaw li yéen ay laaf yi ñu koy déglu di ko bége di dunq yi ma teereeg yéen biir aljana te kon sëñ Muntaxa woo nañu ci garanti aljana ju sax mm-hmm. waaye woo nañu tam ci dalal réew mi mm-hmm. ndax fi ne réew mi soxla na ko te sëñ Tuubaa yàlla may na ko mbindam dafay saafara lépp waxoon na ko sëriñ Demba Kebe bàyyi Demba Kebe ci mag ñi ko daan bindal la bokk mhm. da ko Demba Kebe mu ni ko Mbàkke mu ni ko xanaa xamoo ni dem naa ba bu may tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ma jëlee sama xalima rek di ko bëgg a def ci sama daa di bëgg a tagg yonent bi mhm. yonent bi day kontaan bég ci lool yàkkamtiku looloo tax ma dox ba bàyyi bind saafara ndax rus naa toog di bind saafara te bi may capp sama daa ji fas yéene bind saafara yanant bi di séentu ma woy ko may bind leneen waaye yàlla soppil na ma sama xasida lépp saafara la mhm. kon làmb nañu fépp docteurs yi def nañ li nu man mhm. médecins yi jaar nañu fi nu man mhm. scientifique yi xalaat nañu tawat ju am trois ans ñi xam xam-xamu médecine dugg fu nekk nañu fagaru def lépp waaye solution bi mënuñu ko am feeg delluwuñu ci ñaan ñaan dara gënu cee wóor alxuraan dara gënu cee wóor waxu sëriñ Touba ndax sëñ Touba kat boroomam rus na ko nag. yanant bi rus na ko. te am na yàlla am na yanant bi. te nee na sama mbind saafara la te dëxëñ naa ci lu leen di jariñ àdduna di leen jariñ alaaxira te mbindam mii di bindam suñ ko noppeetee jàng rek musibaam. kon sëñ Muntaxa daa bëgg. ñun ñëpp nu sax ci dellu. la onze. nanu xëy ci alxuraanu karim. yendoo ko xasaayid yi mhm. ba tàkkusaan mu toroxul sunu boroom ñaan ko mhm. ndax yàlla waxam du jaas ta moo ni woon yanant bi wa ida saalaka ibadi an fa inni ah, xaribun mhm. ujibu daawata daayi ida daa nii kon fal yas si lii moo ca moo ca am solo dëgg la leen ma wuyu leen ndax man fa inni qaribun ku leen jige laa dëgg la koo xam ne su ngeen ma fëggee ma ubbil leen dëgg la su ngeen ma ñaanee ma may leen mhm. te ci mbind mi mhm. ci la def lépp mhm. waxoon na ni ñaar du ma ko jox kenn dama koy dama koy teel sama bopp sama dëkk beeg sama mbind mi ñaara ngii su ngeen ma gisee ngeen noppi maa gis du ci may kenn dara nga koy sàggane sama dëkk bi ak sama mbind mi fu ma mën a nekk ma ngi ko téyel sama bopp ku ko wormaal ma wormaal la mhm. ku ci sakko ma may la bo jaare fi nga wara sakko la kon mbind moomu lañu señ muntaha bëgg a mhm. mbind mi nak reuy mhm. li nga wax legi li tax mu mën ko te te warta logique wax la yanantu be ko far la jox ko ko neena yalla yàlla may la meñu arab ta wax ko keroog bu yagul ci ben tele te ci la ko fayee ci ci la ko parce que ñi jang ta xam arab amul ca ñu agni mujunya. ak ñu mujj ñi kenn ku seen señ touba ni muy arab amul loolu mooy dëkk loolu du waxu taasub du parpar loolu loolu la yàlla dogal. ni mu jekkoo làmmiñ wi amul. ndax wax naa keroog ci benn télé ni loo jàng jàng. soo ñëwee fii bu yeboo nga am doctorat. mu jox la genn xasida sëñ Tuubaa. léegi nga gis ci baat boo xamul ak loo jàng jàng. da nga ni bii baat fekkuma ko ci mun jiit fekkuma ko ci xaamuus. jànguma ko ci su araawul yi kii musuma ko gis. da ngay delluwaat fole. ci ndimbalu yàlla pour xam baat bi. loolu nag bu fekkee sëñ bee ko mën a bind te moom mi ko bind fii la fekk baax li ciy firnde sëñ Tuubaa bokkut ak kenn dafa am bis mu woo sëñ Amsatu sëñ Afe Ñang sëñ Afe Ñang mooy magi sëñ Fàllu doomu sëñ Abdu Kumba aan Ñang sëñ Tuubaa ni ko sëñ Afe ndax xàmmee nga téere arut bi jox ko benn téere arut sëñ Afe Ñang ni ko bii de taxul ma xam ko mu ne ko sa bàyyee ko bindoo sëñ Tuubaa ko sa bàyyi ko bindoon sëñ Abdu Kumbaan ñam ni ko waaye bi mu ko bindee de sëñ Moor antasali sama wéjur doon na ma ci jàngal aróot aróot léegi naa fi ñuy coow di wax aróot ni ci sëñ Tuubaa mel kenn melu ko ni mu ni sëñ Maam Moor Anta Sali ma ci doon jàngal aróot ma ko ciy jàng ñu dem ba am ci ab diir tawat song sama wéjur sëñ Maam Moor Anta tëralu ko tawat ja yàgg lool ak moom léegi nag comme tawat na mënatul na koo jàngal sëñ Tuubaa nee na yàlla di ma ko jàngalal boppam noonu la ko waxee ni mu ko waxee rek laa nettali yàlla di ma ko jàngalal boppam ma koy jàng di ko jàng di ko jàng necca necca nee na am na sax ci mbokk yi ñu doon wax naan sëñ Ahmadou moo bari solo de téere bii nu mu ko mën a jàngee te Mamour Anta Sali tëdd kenn jàngalatu mu ne waaye yàlla sama borom di ma ko jàngal bi ma ko jàngalee ba téere bi mag Mamour Anta Sali naka la xaw a féex ma dem di ko ziyaare ji nee bama ba ma ko lu yaram wi def luma ma bu dé amna luma metti ci tabat gi de moy ñàkkoon a mën a la sa téré ba sëñ bi néna ah lool kay amul solo ndax ma farna farna am sax sunu borom tawfiq jangal na mako ko bopp bima ko waxé sëñ Mor Anta dafa melni ku tiit nima ahmadu ngani lan ma sunu borom moo ma ko Muni kan muni ko sunu borom num la ko jangalé muni ni ko doon de ko kañu tok fa lima déglu la mais biñ ñëwee mu teg téere bi ni ko bisimilah. sëñ Tuubaa di jël par xët bu ñëwee wax ko ni ko yàlla jàngale ba téere bi mat sëkk. maam war ànd sax ni ko amaat naa ci déggin ko bees sax man. daal ni ko nag ba àddunay tukki sama nopp sa nopp lii kat bu ko wax kenn ndax boobu mu ngi koy protégé di ko nëbb. ndax teel gee sotti. koo xam ne yàlla ñëw di la jàngal arut. dëgg kooku mënoo yem ak kenn ci làmmeñu arab. dëgg moo tax li ñu bind kenn mënu ko bind. bu am léegi bayit bii nga may nga may hmm. ma jox sëñ Jibril mu relancer ndax bëgg naa comme tudd nga sëñ Muntaxa am na lu am solo lu ci sëñ Pape mii indil nu ndax général euh, dafa am Cheikh Amadou Kara dafa am baat bu mu waxoon. keroog bi sëñ mun Muntaxa waxee ni man kat sama fon jaayante naa ko. mu ne ko li nga wax mënul ne. ba defal ko taalif boo xam bi mu toogee ñëpp xam nañu ne fa sëñ Muntaxa ne murid dëgg ngay nekk pour ne fa. sëñ Muntaxa. waaw fa nekk murid dëgg ngay nekk ngay nekk pour mën faa nekk. soo dee nekk murit bu am calcul wala am benn espace bu des ci sa xol doo ko fa fekk foofu moom dafaa ne mooy daa sës rikk la ma waxoon ne yegg naa fa ñëpp doon yegg na fa gaa yi yegg naa fa waaw mat na sëkk sëñ Tuubaa dafa wax fii ne xaadali allaahu jaza allaahu bila wa ajra abdillahi waaw dafa wax ni sunu borom woo matal na ma payam bi muy fay mhm. yàlla ci sunu bopp moom ci boppam moo ma ko woo matalal boppam xam nga leeg leeg sax yow sa patron war laa fay waaye dalay wax jaaral ci fitna yi yëg pour ma fay la danga xaar ba la cinq ak jëlal oto fekk si ma fii ak jaaral ci bureau bi ak wutal protocole ak siñel fii ak <laughs> boobaa day jafe lool nag te dina la fay waaye moom yàlla miy fay ñëpp moo ma woomatal sama fay man jox ma xaadari yàllaahu waaw jazaa allah waaw bilaa yàlla la ma woomatal nag bilaa adan nag te bi may fayit na def ci benn lor léeg-léeg ngay fay nit sax defal ko ci ay condition yoo xam day metti ci moom defu ci benn lor waaw wa ajira abdullahi mu jox ma tam nag yoolu jaam jaamu bu yàlla xam nga tey jaamu yàlla lu jafe la mm-hmm. nekk jaam bu yàlla rek ko def yow jaamam nga mm-hmm. ñu néew la ko wax mm-hmm. ni'mal abdu innahu awab waxoon na ko yenantu yàlla ayóba de kooku nangu na ne jaamam la sama jaam bii baax na la wax dëgg la wax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam subhaanallazi asra bi la laylan ila al masjid al haram ila masjid al aqsa alladi barak naa wax de nangu la kon diw sama jaam la yàlla nangu moom gim la moom nang reconnaître la yow ni jaamam nga parce que condition jaam yëpp réunir nga ko boobu yool bu jafe la sëñ Tuubaa ne man yàlla woo matal la ma fayam sans condition sans difficulté ba noppi jox ma récompense ni jaamam laa man nangu ne moom laa waaw la wax waaw buur bëgg la nga bëgg buur bëgg la da koo gën nag ndax euh, yaakaar naa ne lool rek la ñuy wax kon sa Jibril ma bàyyi la euh, nga nga ñëwaat tuuti su ko defee ñu dugal sëñ Pape euh, moom it mu indi ñu ay abiyaat yi nga xam ne ni général wax na ko ci seex Cheikh Mamadou Muntaxa maa ngi ñaan na kuy seetaan na nga ñaanal si Muntaxa mu yàgg fi loolu téwér ndax li ñu wax naan mooy mooy mooy solution bi solution baa ngi nii waxtu wu nekk rek dana indi solution bi mooy lan mooy tey fi mu la sëñ Tuubaa wax kooku daf maa warlul at mu nekk dama koo warlul way di weex xam naa xamoo ne gars yi bu ñuy màggal anniversaire yonente bi comme ni ñuy def di fàttaliku moom nee na anniversaire am tagg la ma war ci moom mhm. mustahsanin kulla amin yow mu yuxtaaru at mu ne moom daa war a génne lu bees tàq tëggal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Jibril jërëjëf jërëjëf sëñ am si Ablaye bég nañ lool tabaarkalla euh, sëñ Xaadim xam naa balaa ñu ñëw ci sëñ Paap mhm. euh, sëñ Tuubaa mhm. dafa sol robb avocat dox suñu digënté ak suñu borom layal ñuko wahal waxal ñuko nyikat ne top, ñi kat bu len top sen moy yu bari sen yaram yu neew doole yi sen nangam sen nangam sen nangam ba ñew mu créé ay ñaan nak xam suñu borom fam ne mu teug ay ñaan dugal ko ci seigne na ci legi dama xamone fofu bu ko du listajib daawati bi maa faaxa zanni wa bi maa faaxa rabbi kulla zunooni xoolal yooyu mu jël ko dugal ko ci xasida yi ak yeneen xeeti ñaana ju lan mooy dayob ñaan ak palaasam ci xasida yi sëñ Tuubaa yi ak ndax ñaan googu suñ koy jàng daa mel ni ñun ñooy wax ak suñu borom ci làmminam ak léegi-léegi mu wàcce boppam bindee noo xamante ni sax euh, si si yenn xasida yu mel na ay alaaman affaire jàppee boppam ni man nàngam mu leer ma ne lii muy wax moom weesu na foofa waaye ñun ñii di ko jàng moo moo tax loolu loo ñu si mën a jox ay misaal laataa ñoo ñëw ci sëñ bi. waaye xam nga loolu sëñ bi day doxee ridda mhm. dafa am lu ñuy wax al maqaamaatu al yaqiin atisa mu wax ni juróom-ñeenti xeeti ndee la yoo xam ni mhm. bala nga yëg ci yàlla faaw nga dee ko maanaam ba nga xam ne moo ci gën a kawe mooy ridda bi sës ci moom mooy sukkuru ba sësaat ci sukkuru mooy sabru gis nga nag eh, moo tax yonent bi saa sam ban ko muñ ak sant lu gën dañu sant gën ndax muñ dafay sës man toog naa aw ma dépasse ma ne xaaral ma seet sëñ Ablaye Diop mun ma tey de moom yëf yi Njaay la sant ma ñëw sëñ am wax ma lool ma ñëw sëñ Jiru wax ma lool ma ñëw sëñ Saalum ku ma yaakaar dem ci moom lu fa des muñ mhm. kon muñ dafay sës mhm. mu ni sukuru nag bi ko nit kiy def moo tax jëf lay doon bokkul ak xamdu mhm. waaye sukuru bi ko nit kiy def da koo tal da koo tal maanaam ndax nit bu ko nit bu ko yàlla mayee mu mën dafi mën a dem dafi njaaxum ba noppi mu delloo ko yàlla kon tal na ko moo tax mu ni boobu moo gën a kawe waaye rida boobu nag ma waxoon léegi sëñ bi day doxee noonu xam nga rida mooy lan sëñ bi bu bu xëyee suba yàlla teg ak taab taab googu mu moo koy dàqal mu wér. Hmm. loolu du ñëpp fa toll. Hmm. Hmm. <laughs> maanaam tey bu xëyoon ah ñàkk ab ñàkk dépasse moo ko gënaloon loolu moo tax bu këram daan lakk daawul génn dara ndax nee na bu ma génnee dara damay daw dogal yàlla. loolu mooy rek daan nag loolu du ñëpp fa toll sëñ bi day doxe noonu moo tax. sëñ euh, euh, sëñ Ndaama Rahmaan da ko waxoon ni ko li ñu yéeme day mooy soo ñaan sa borom soo ne càpp aw bayit balaa bayit waa daanu sa borom defal lu gën a kawe loolu mbaa bayit wa ca sës waaye sëñ bi dangay dégg mu ñaan fii dara mu ni sama borom may na ma lii dox tuuti ñukk-ñukk daan ni daal di ñaan lu gën a suufe loolu loolu rek daa ko waral loolu mooy koo xam ni waxtu wu nekk màggu yàlla gi mooy feeñ ci yow ba doo ba doo yëg ni dara nga mm-hmm. sëñ Tuubaa noonu la doon doxee loolu nag eh, moo tax kon ci bayit ci bayitam yooyu ngay wax ñaan waaw ñaan sëñ Ablaye junj na ko sànq ñaan gi gën a taamu mooy ñaanuk yonant moo tax rabbana yi ak ñaan yi nga xam ne yonent da koo ñaan yàlla nangu ko yooyu danoo danoo wax ni ndax ñaan gu nangu la ba noppi moom danoo taamu ku koy ñaane muy benn bi ci topp mooy jëf ju nu nangu jëf ju nu nangu waaw jëf ju nu nangu sëñ Tuubaa nag xes dayim jëf ju nu nangu ya maanaam jihaadin qada war a ci wa rabbi ka sa'yi kulli haadin arsala li ma doon def jeex na yàlla nangu na lépp kon jëf ju nangu la te nee sama jëf ju ci nekk nag wuutu na jëf jëfi yonant kon kooku loolu jëf jun nangu la muy benn bi ci toppaat mooy sëñ bi ju ñi fi jaar ñëpp duñ jun nan loolu xam nga damay wax Ablaye wax na ko sëñ Saliou wax na ko gis nga maanaam sëñ Tuubaa soo soo duggee ci alxuraan tuuti mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. ak noo mën a mel mm-hmm. nga nga nga nga nga nga xetantal mbirum sëñ tubaa tuuti su la neexee ak su la naqaree sëñ tubaa dina la yem xaw ma nag nga bañ dugg ci alxuraan bañ jàpp ni sëñ bi jëfi boppam jum jëf nee rek muy xasida yi mën a am xam-xam man a woy lam yan xu nax yi wala arud yi taqawulu aw afatul xaridi bi sëñ Ablaay doon wax mu ni nax bi may tagga rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak arud bi ma koy tagga yàqu ci am werante du ci am sëñ tubaa du yàq werante it du ci am mhm. moo tax man la bu fekkee ne danga da dugg ci alxuraan tuuti dugg ci mbirum sëñ tubaa ak koo mën a doon sëñ tubaa dina la yéem mhm. li may la jubloo wax mooy mhm. xam nga dafa wax ni naabat kitaabati ani silaahi wal jawalaani sawi salaahi li sëñ Ablaay waxoon ni ku ko gën maanaam sëñ tubaa maanaam ni mu dégg arab lu jé yu yéeme la ne sama mbind wuutu na ngànnaay ñun lan lan lan xam ci ngànnaay ngànnaay liñ ci xam paka ci la bok jazi ci la bok fital ci la bok nangam ci la bok sëñ bi waxul lolu ngànnaay ci sharia la wax way waxul ngànnaay kese motax faaw sëñ bi nimuy waxe ñu degg ko nabal kitab an silahi moy sama bindu wuutu na ngànnaay ci sharia moy jep jaamu gu nit di jaamu sama bindu wuutu na lolu lolu moy ngànnaay ci sharia motax yomi mu ne yow mi wut ku la defar jëru ngay sonn wala je sabi sawi sama qasdi day defarate de gis nga ñaari bayit yi bayit wi ni mu ko tëggee mhm. lee dafa wax ni gis nga moo tax boo gisee Sëriñ Tubaa mbiram boo setantalee tuuti laa wax de mhm. te it nee naa képp koo xam ni yàlla dimbali na la ba ngëm leeru ngëm nekk ci yow mhm. doo mën a weddi Sëriñ Tubaa déedéet topp gi nag moom du ñëpp koy topp ñëpp mën na topp ñëpp mën na topp Sëriñ Tubaa duñ def de la waaye nag ndax loolu dara la waaye maanaam bu leeru ngëm nekkee ci yow doo mën a weddi Sëriñ Tubaa xaw ma nag ku leeru ngëm ci moom xam nga mm-hmm. gëm ak leeru ngëm bokkut yor yor yor yor paquetu suukar ak suukar daa bokkut parce que nit mën naa yor paquet suukar bu jeex amul njëriñ mm-hmm. boo ñëwoon ci bitig bi jaay ma paquet paquet lan suukar saa tax mm-hmm. mais mais yor paquet war a yorob kees taxut a yor njëriñ dama ne leer gëm maanaam gëm naa yàlla ak leeru ngëm bokkut parce que leeru ngëm day sax ci xol leeru ngëm ku mu nekk ci yow doo mën a weddi sëñ soo ak ku mën a koo dégg muy sikki sàkk mbiram rek xaman leeru ngëm moo manqué ci moom moo tax julli mën nga koy def sa doo am leer leeru julli mën ngay julli te doo am bànneexu jaamu yàlla léegi nag loolaa moo tax boo demee ci alxuraan lii sëñ taxaa def woote gii faaw ñu laal ci tuuti mooy li sëñ sëñ Jibril doon laaj day ànd ak li may tontu xam nga boo demee ci alxuraan sëñ Ablaay boo demee saarion bu dee xafs bu dee wars andiwul waaw mais bu dee xabsu dafa andi waaw wasari'u la def sari'u comme warsa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arda as samawati wal ardu mhm. lil muttaqin motax ci lu ciowlu bari bari mbir yi ñi ragal yàlla dong koy mujjé mhm. sëñ Ibrahima dégg nga loolu coow bari bari ñi ragal donc dong mujjé suñu borom da fay indi misalum wax ni na ngeen gawantu jëkkalante ci lu leen di jëmee ci njëggalu yàlla waaw muy benn mhm. ak na ngeen gaaw jëkkalante ci leen di jëme ci àjjana mhm. mu mel ni foofu dan koo laaj ne ko àjjana jan mu ne àjjana yooyu day boo xamee asamaan yaatuwaayam ak suuf rek xam nga àjjana ak yaatuwaayam da ko waxe noonu waaye àjjana ëpp loolu yonent bi saa sam ba mu koy firi waaye lam ci teg waaye da maanaam eh, lil mu taqi na mhm. àjjana ji jooju ñi ragal yàlla la ko yàlla waajal léegi nag lil mu taqi na jooju moom la yàlla waxaat ci suuf di leeral mooy ñan alladina yunfiquuna fi sarraayi wa darraayi mhm. wal kaazimina gayza wal aafina anin naas mhm. wallaahu yuhibbul muhsinin maanaam mooy ñi nga xam dañuy joxe su suñu barilee mhm. sarraa jooju bu nu barilee lay tekki wa darraa bu nu néewalee waaye nee na ki am di joxe yéemewul xam nga kan moo yéeme ki ki ñàkk maanaam ki bariwul di joxe moo tax dégg yenn saa yi nga dégg ñu ni yàlla xeebul yéemul ah kay yàlla xeeb na yéem na hmm. Hmm. ndax ki bari le ah di joxe tuuti hmm. yor téeméeri junni sa poos hmm. war di saraxe jël jël jël ñaar fukk joxe yàlla xeeb na loolu yàlla yéem na ki amul dara am du muy leen nit soxla ko mu jox ko sarax ko loolu yéem yàlla yéem na ko kon yàlla xeeb na yéem na moo tax alésine yi soxna fi saraay wa daraay wal kaasimiina xëy sa ñi nga xam ne bu nu meree wan na ko guux ko ba mu rees kenn du ko yëg moo tax suñ tubaa ne xaa a xaasabtu nafsiya maala aada yi bi kas mi rëy wa ma xawta dayi ne ni ma ànd ak tubaab yi damaa fexe ba du ma jàpp mer bu du baax de la <laughs> kon àdduna ma xawta dayi muy naas afawtu ani naas daayu tural yëpp loolu moom mutu lu ñuy wax gis mm-hmm. xas day ni muy demee mm-hmm. léegi nag wala yoxe musi dafa am ku ne eh, Seydul Abidin mhm. amoon ab jaam mhm. bis mu woo ko mu ñëw ni ko kaay def la ma jàpp mhm. bi mu koy sottil nii muy jàpp li mu ko doon sottil wadd bi mu waddee dal dal ci tuñ mi dagg tuñ mi dal ci tànk bi dagg ko jaam bi tiit taxaw mu ngi taxaw tiim ko Seydul Abidin daal siggi xool ko jaam bi ni ko jàkk mun ko jàkk jaam bi ni ko والعافين عن الناس منك عفوت عنك منك والكاذمين الغيث منك كذمت غيثي منك والله يحب محسن منك goreel naa la ndax dégg nga loolu léegi nag li ma waxoon sànq ci àjjana jooju yàlla wax ci ni doy na asamaan ak suuf ak yaatuwaayam suñ muntaxaa dafa bañ gaañi nit ñi toog ah ci lu leen dul may jàmm ëllëg Mm-hmm. sëñ Ablaay mbaa nit ñi toog ci lu leen lu leen jural tuyaaba mm-hmm. moo tax yonent bi saa ba mu koy firi mm-hmm. dafa wax ni yomal xiyaam aaye boobu laa wax de dana aaye boobu mu ne yomal xiyaam sëñ Saalou euh, bu nu attee jaam yi ba ñii de war a dem àjjana nee na ba ñëpp dugg àjjana ñi war a dem àjjana ñëpp dugg àjjana day am ku tardé xam naa am njóobeen lay doon <laughs> yaa ngi dégg uh-huh. nee na ba gaa yi dugg ba jeex ba jël seeni dal ba toog jàpp seenu njàmbur ne ci lan ne waa ji door a agsi yonte bay wax de mooy firi nee na bu ëgsee ñu ni ko waa yow yàlla ni ko yow foo ne woon yow sama morom yi dugg na àjjana bu yàgg ba jël seeni dal ñu ngay xéewlu ci àjjana yow nga toog ba waxtu wi mu ni ko ah, ah man daal xam naa maa ngi door a ñëw yàlla ni ko waaye xam nga ni ngay def seetal buuru àdduna boo xamoon te mu neex la nga wax paleem ba na mu doyoon ci alal ak koom ak yaatuwaay nga wax ma ko ma jox la lu doy noonu ci àjjana mu ni ko ah loolu nu mu mën nekk di ndax man na jël nañ seen dal ba ba jeex na kon mooy wane ne na fees na yàlla ni ko dee tey ngaa def na ma la wax mu xalaat benn buur ni ko diw su borom ni ko moom de li ma amoon paleem boobu la mu doon rëy rëy yëpp defal naa la fukkam ci àjjana mu ni ah, mun ko dolliwaat naa ci fukk mu ni kaa ah, mun ko dolliwaat naa ci fukk loolu day wane ne na da lu jeex du fees loolu la loolu la yonent bëgg a wax mm-hmm. kon aay boobu lu firi ki soo ko bëggee dimbali mm-hmm. buka ko bañ mu am jot serigne touba ngeen neena na ñett ngi ni yoo xam ku ci jaar muccu dimbalul yalla way du ngor ak nit serigne touba wax de mm-hmm. neena na ñett ngi ni yoo ku ci jaar muccu dimbalul yalla la way du ngor ak nit mm-hmm. neena nga nek ndaw jaar ci ak ndaw bu muccu mm-hmm. ne dimbalul yalla way du ngor ak nit neena nga am alal di ci def lu baax di ci def lu baax muccu serigne touba ne dimbalul yalla way du ngor ak nit waye neena am jot ne ci am jot ba def lu baax ba muccu sëñ Tuubaa ne ndimbalu yàlla waaye du ngóor ak nit xam nga xale yi nekk xel xel koom mhm. amuñu jot ak toj fii moo tax temps da nga koy seere téye ko bu baax a baax mhm. moo tax moo tax waxtu sëñ Tuubaa xam ngeen ko mhm. fii ne waxuma sax jamee sëñ Tuubaa waaye ñi jaar daari sëñ Soñ bu sëñ Soñ bi ñi moom ko romb yoroo dara déedéet ñi mu xalaatoon nga ko mooy dañu dul bàyyi nga yow sa sakos bopp nga am benn jot nga benn jot parce que nit ki saaka boo bàyyee boo ko bàyyee moo am jot du baax moo tax sëñ Tuubaa boo demee ci ay xasidaam li muy wax sëñ Abdou Lahad dañu woon waj al joogi suñ tubaa wax ka jaala la waxe sëñ Abdou Lahad nag laay wax mu ni wahab joogi suñ tubaa wax ko wahaba la maanaam may ma waj al mooy yàlla maa ngi la ñaan nga defal ma nangam joogis sëñ tubaa wax ko fekk yàlla def na ba noppi loolu nag neex naa dégg yéen a wax ni alxuraan sëñ Ablaay dañ koo toxale ci lawul mahfuus andi ko ci asamaan si léppi alxuraan xaj na sax ay bi muy ñëw maanaam saar yi bi muy ñëw tegaloowul nii waaye ci lawul moom nii nii kaamil bi tegaloo noonu la tegaloo woon foofa dama ne nii kaamil bi tegaloo nii ca lawul mahfuz mm-hmm. noonu la tegaloo woon mm-hmm. waaye wàcc gi nag tegaloowul woon noonu mm-hmm. waaw lu tax yàlla nettali ci mbirum yuusufa nettali ci mbirum aadama te boobu aadama amagul nettali ci mbirum yuusufa na muy boobu amagul nettali firawna te booba na amagul Moussa amagul mhm. yàlla nettali seen mbir yëpp na muy demee mhm. te booba ñoom amagunu mhm. kon mooy toxal gi ngeen doon wax ndeysaan xam nga lu nangu maanaam dafa bokkul ak la dëgg la xam nga gis nga yàlla nettale woon booba Moussa amagul firawna amagul Égypte amagul feneen amagul ndax yàlla ba muy wax alxuraan booba loolu amut dëgg la ba yonent bi ñëwee mu taxale ko indi ko fii léegi nam doon defale nam ko doon tegalee saa yu wàcc rek day fekk loolu am dëgg la kon loolu ni alxuraan dem ko koo taxal andi ko noonu la lépp demee sëñ Touba waaye temps bi temps bi temps bi mu am tey sëñ Touba diggam ak boroomam dem na ba ak ay nelawam sax nekk jaamu yàlla naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu xal bi yu dabbiru aayan turutul xikama temps bi ni mu xate est-ce que logiquement sept tonnes cinq xaj na ci sëñ xaadim déet xam nga sëñ xaadim tontu laaj yi dimbali aji néew doole yi jaamu diggam ak boroomam booleeg maanaam nekkut ci ay loxo yi ñoo xam ne ni bu leen santee ñu def bu leen teree ñu bàyyi booleeg li mu tagg yonente bi temps boobu ni mu saturé waaw xam nga faaw nag ñu xam di la maanaam faaw nag ñu xam ni yàlla yi lijjantee mbir hmm. xam nga dama lay wax mbirum mbirum mbirum suñu boroom ni muy doxale inna alladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha laa tufatahu lahum abwaabu sama wala yadxuluuna jannata xata yalijal jamalu fi samil xiyaab wa kadalika najzil mujrimin yàlla dani man na maa rey gëléem waaye mënuma kaa jaaxaanal waaye su ma jaar la ci mën bu nub ndax dégg nga jooju wax mënumaa rey gëléem waaye mën na maa rey gëléem waaye mënuma koo jaaxaanal waaye su neexee jaarale ko ci bën bënu puso mhm. ki mën a jaarale gëléem ci bën bënu puso mhm. lu mu la defloo di nga ko def mhm. suñ tubaa ko suñ tubaa suñu borom moo ko doon defloo suñu boroom ku muy def loo li ngay def di ko def waaye nag nan xam ni am na ci loo xam ni mëne su koo leeral dëgg ndax am na loo xam ci doomu aadama yi kese kese kese kese mënu ko loolu moom lu leer la waaye nag damay wax ba tàyyi nii sëñ bi fi mu toll dimension bi mu toll. Mm-hmm. am na noo xam boo ko waxtaanee. Mm-hmm. ñi lay wedd ñu ëpp. te su boobaa da nga ni alak te suñ tubaab ko wedd al ko. dëgg la ndax dégg nga jooju wax. Mm-hmm. moo tax loolu. sëñ bi dimension fi mu toll woon. ak ni mu doon defee. xam nga euh, mën naa ci indi misaal yu leer. xam nga man sama waajur. ku ne xam na ni njaarim la ne woon. moom wax lii may bëgg a wax. maa ngi dégg sax ñu koy nett te nañ koy nettali sax noona la. waaye moom moom ko nettali ba. mu ni sëñ Malick njaay ci boppam. sëñ Malick Ndiaye Malick Ndiaye. Mhm. moo ko moo ko wax. ne sëñ Malick dafa ñëw fekk leen fekk mag ñi toog ñoom ay gonoon la woon moom. Mhm. nee na mu ne ah sunu waaj defati na njombe de. Mhm. loolu la wax sëñ Malick Ndiaye laante noor. mu ni sunu waaj yi defati na njombe de mag ñi ni ko lu mu defati. muy dañu jiite woon waxtu xam naa waxtu biral la. waxtu biral la nee na muy tari Fatiha. ne sëñ ma sàmbaa ngi ci sàpp bi mhm. sëñ mu dumbee ngi ci mag ñu bare ngi ci mhm. ne sëñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata mustaqim bi mu tolloo foofu mhm. ñu seen ko muy dox teg tànk tegaat tànk sëñ ma sàmba nee na moo dawal loxoom laal mbum bi sëñ bi taxaw bi sëñ bi jullee ba noppi nee na sëñ ma sàmba raam bëgg si ci moom nee na sëñ ma sàmba bu mu sànd wax ak sëñ bi ngelaw ngelawam ngelawu gémmañam daawul dugg ci noppam sëñ Tuubaa da ka daan mooyale da ka daan mooyale gémmañ ci mm-hmm. nee ni ko Mbàkke da ngaa def lu nu jaaxal sëñ bi ni ko lu mu doon mun ko bi ngay taree fatiha ba si ihdina siraatal mustaqiim mm-hmm. dañ laa gis ngay dox ba maam sama loxo ci yow nga taxaw sëñ bi ni ko naa ma sàmba baatum la wax de mm-hmm. lin ma wax rek laay wax mun ko naa ma sàmba boobu yéen may gis nee mun ko Mbàkke boobu ñu lay gis mun dafa sama kanam waxtu woo ma jàpp ni ma bëgg leen a jàll su ma su ma ñëwee di jël si mbooloo mi mhm. kon loolu laa lay wax Sëñ Tuubaa yi mu daan def jëfi nit est-ce xam nga mais loo am na loo xam ne pour nettali ko mhm. danse la mhm. mën naa ci indi yeneen waaye loolu ab junj la parce que Sëñ mbiram mag ñi newoon ak moom am na loo xam duñ la kaawul wax man sama waajur daan sëñ daana xëy suba tëju ba ngoon barke Sëñ Tuubaa Mbàkke gis nga su ubbee danaa waxtu wii ba bisub tey dam mun ma woon a jaxasoog nit ndax sama xel daa dem jaareem ce waaw loolu laa wax ni la kon li mu doon def ci temps bi temps bi mhm. Mhm. ci doomu aadama yi kese mhm. mënul loolu lu ci xaj dëgg la nan seet nag kon lu tax mu mën ko dëgg la wallaay wallaay wallaay lii mu doon wax nii pour dëggal ko euh, sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana sax ko nettali muy lu leer nañ ñi ndax ñoom dañuy nettali li ñu dund ak sëñ Touba bind ko ci seen téere nee dafa am julli suba go xamni ni mhm. bi dafa yeex a génn biir nga ko ni ma ko liire yeex a ba mbolo ma la ci ëpp julli ñibi ku ñi wax señ Modou Cissé mo fa des ak señ sirélo mhm. bi señ bi ñëwee laaj leen ni ana mbolo mi xana kii mu ne ko ñi fi julli indi won képp de julli nañu mbacké ba dem mhm. mu ni yeen nag ñu ne ko ñun dañoo indi won julli dañu fee indi ak xaaral la ne nag li leen fi taxa ñew rek a taxam dal ni tay fa ma juggé ba ngeen jëk ma julli dem bu ñu jëloon gëléem koo xam ni ñeent fukki at. bu ko gëléem doon dox. Mhm. fa ma jógee mënut a agsi. Mhm. ñeent fukki at bu ko gëléem ku mat sëkk doon doxee fa ma jógee ñëw tey ci yéen mënu fee agsi te sàllaaw sunu boroom moo yebaloon ay ndawam ay malaaykaam ñu ñëw di tuxal li ma bindoo mu war koo mhm. yóbbu fële ca nguuram ka ma leen di jàppale ñu koy yóbbu. la yóbbu rek sëf na ñeent fukki gule guleem yu bokkul. ne ko sàllaaw li ci des dong ragalaat yi moom jën jariñu waaye loolu mu ngi ñu yóbbu ci sunu borom may xaar ndeysaan kon kooku mënoo ko wallaay wallaay <laughs> jërëjëf sëñ jërëjëf euh, sëñ Xaadim sëñ sëñ Jibril euh, na maa dogal kon balaa sëñ Saaliwoo ñëw ndax euh, am na ay rabbe yu kéemaane yu muy ci jeexantalu xataaba ak maziyaat yoo xam ne ku ci nekk jot nga lool ba nga koy jot yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax nga jot ko xam nga sëñ Tuubaa da koo bëgg ba li muy wax ci moom day yem ci moom juste maanaam mbubb lay doon moo xam ne du ko ëpp du ko manqué waaye day rappelé nam doon rappelé suñu borom ci yenn aayat yi muy tënk xasida yi day rappelé yeneen yonent yi ne leen ak daraja ju ngeen mën a yor ba ngeen tollee fii waajee tax waaj yi moo tax moo tax ba ma demee ma Madinatul Munawwara ba ma dugg see ñu ne barrière or bi ma ne leen mën naa nekk kii rek mën a nekk sëriñu sëñ Tuubaa ku dul kii sëñ tubaa xajul sa ginnaaw koo dégg ñu naan la sëriñam woon dafaa jaaroon di di ñoŋal lu baax ndax sëñ tubaa moo moo xeebul dara lu baax lu waaye lu yor te mu baax rek sëñ bi dana la ko ñoŋal waaye kenn ay sëriñam allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarada foofu la sëñ tubaa ne woon yàlla la tegoon moom ci la doon lu waaye leneen lu mu am itam ci yonente bi aleyhi salaatu kon sëñ Pape nga ñëwoon liñ ci ab yaat yooyu nga xam ne nii général defal na ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñu door a ñëwaat sañ Jibril mën a relancer question bi ak Serigne Saliou Samb ñu bàyyi sëñ Pam Ndiaye Kara ñu ngi ziyaare bu baax sëñ Gana Messere mi may yónnee message léegi di ma wax ne ma nuyul ma waa plateau bi ñoo ngi bëgg bu baax tey concentré wu ci jataay bi ñu ngi koy nuyu baax di ziar ak sum soxna yu baax yi ñëw ànd ak ñun li nga xam ne mooy jataay bi ñoom ay murid lañ tuwaar kàlla soxna Yacine Bamba al Muntaxa soxna maam Awa Mbub ak soxna Adama Ndiaye ak euh, soxna euh, Ndey Birane tuwaar kàlla mun sëñ Muntaxa mun sëñ Fallu bokk tuwaar kàlla kon sëñ Pam bismillah الصلاة والسلام على نبي مددرا بسم الله مامي ماي جنب دف درا الصلاة والسلام على نبي مددرا وآله وصحبه وغير قديمه الشيخ أحمد بامبا بل عيسى مودي درا الشيخ سيدي المختار مددو الأربجة الربجا عمون ñaari ati اتي gi la دي سرا yal na ko ku tedd ki teeroo ki leeri sëriñ baara nangul ko ay jëfam ci yoon wi mooy doomi sëriñ baara ki ko wutu tey ku taamu ku tedd ki yàggal ko bagayrul nama igama mam wax mu doon ca dara bu fi yàggee te amoo ku wér waa réew mi danañ kontaan sëriñ Muntaqa ku am ci leeri aw turam yow dootoo ñàkk dara miim nun tatombe xaaf liif gu ajiyan nara al Muntaqa di octogone tur wi da lamboo dara te quinze mooy six kon day doon jihaad sit est ouest nord wallahi yaa yore dara alxamis yi ëllëgëy doon sa fukki fan ak juróom ci bopp xilaafa gi yàlla nanga sottal dara amin bi jaahi ahmad alxadim moom mi la fi bu ay cat jege fenn bu dara man ci yow dara nangul ma tey ji ma doon alkaatib muridiya turu général bi jox la ko hadiya man duma dara nangul ma ko ngir sama mi la fi teg te fonk la lool def ma nii ni mu ma def ba tax ma di niru dara jaayante na ak yow tey ci tooli Bamba fépp fas yéene liggéeyal yoon wi ndax jëf rekk moo di dara damay takkaat sama laxasaay maa di soldaaru bamba di nekk sab alkaati buy géeteeru te nde duma dara doonoon naa fi ab xaj bub sëriñ bamba bu daan mbëwu mu soppi ma gayndeem gu daan nga ruuturam man mi kara mu may ma may kar ndaw ñi ta ñooñal ta ñax ba ñëw ci biir Bamba fépp ngir xam ni moo di dara jërëjëf Sëriñ Tuuba la gone yi fowe moo ma may ma siiwal ko ci ndaw ñi ndax moo di dara jàmm yàlla goog dara manu ko yàq ndaxit it imaamu akbar moo ni sax leen ci moo di dara mbàkke tey fii la yam ba beneen yoon dégg ma te nangul ma lii may ñaan doonte tekkiwu ma dara asalaamaaleykum maa maa ngi lay baax baax di ziare kilifa yu tedd yi ma bokkal jataay bi di lool nag ndax ñii dañuy sag dañuy sag ci ñun ñu leen di béggee wax dëgg yàlla Serigne Saliou Samb. Mhm. Serigne Abdoulahi. ak sunu kilifa yu tedd yi. Serigne Khadim macha allah ci ku ko déglu. déglu li mu wax ci xam-xam macha allah ci xasaayid yi. wallaay ñu ñëw fi nag di ci ndigal. Mhm. ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Mhm. nga xamante ni gis nga ni nga ko waxee rek. Serigne Mountakha mi. nga xamante ni ñu ngi ñaan mu yàgg fi loolu tam ko wér. amiin amiin. keroog ba mu toogee la suñu bi ni képp ku jooyee na nga ree. tey ñaan ku tedd kii di rey ku koy béggee ba tax ngay ree looy def Mhm. Mhm. wax ci moom lu doy waar mhm. loolu dara umpale ci yow sëñ sax yow sëñ am ñu koy ñaan mu yàgg fi lool waaye di ñaan jàmbaaram ji Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Ndour mu yàgg fi lool tam ak wér ku baax ki mu ngi wax léegi ci ni mu mel ci xasida yi wallaay limousine ci moom nañ ko gisee mu jël ko jox ko xasida yi wallaay ñun ñi ni mu def ak ñun ci baytu xasida yi ci bu dee ci màggal wax ak lu mënti doon dañuy mujj yéemu ni mu taxawee noonu 9 heures douze ci xasida yi lay wax bayit bu mu nekk firiñu ko jàll ci beneen bayit léegi mbokk mi ngi wax léegi ci li tax ma ñu ubbee sëñ Muntaxaa bi mhm. mënoonoo jël xasida ubbee ko mhm. waaye day ndigal mhm. sañu maarum sëñ Muntaxaa bi te sànq bi juriñ ji di wax ci xasida gi nga xamante ni mooy tawba tabat na suux nga xamante ni ñun daanaka ci moom dana ko jàngee ba féer ci ijji dëgg la diiwaan képp ku ci ne xasida googu daanaka mooy sa xasida wa fi lima lamastu bil yadayni وفي لما مزيت برجلين وفي لما نزرت بالعينين واغفر لما سمحت بالحزنين واغفر لما أكلت بالبطن وما بفرج عد عزيت يا رب السماء وفي لما هدمته بفضلك واغفر لما أهرته بمانك واغفر بجودك لما أسررت واغفر بلطفك لما أهلنت وفي لما حلمت يا ذا الكرم من جنايتي وما لم أحلمي وفي لما حلمت مني وحدك في حمد أو في حتى بعفوك وآتني حسنة في دنيا وفي حد ويسرا لي سعيا ولا تواكي عبدك ضعيفا بدعفه إذ لم تزل لطيفا واغفر له واغفر لوالديه واغفر لكل من نمي إليه واغفر لسيخه وسيخ سيخه وسيق ذاك السيق ثم سيقه ولجميع المسلمين ترى والمسلمات للحل مجرى وسليم مع يعني من حد كفى على الشفيع الشفائي مصطفى والآل والأصاب أهل الأوبي أنا لتائب حبول توبي لي جنرال دوغنا يدكو زيارة باخ باخ شيخ أحمد كرام باك نوريني بلا موي نيو بيد بي مو واخ سي خاسيدي دا نيو كرم ma ne ko sëñ Touba dafa wax ne li ñuy lekk mu saf suukar lema ci dàq te maa dàq lem mm-hmm. mu ne ma ah, nu mu ko waxee ma ne ko bientu wa tubtu wa xazaltu fa fali xalaa watan tafaqul xazla keroog sëñ bi euh, daanu na jël boo xam damaa mujj tax am kersa ci ci ci ni mu mel ci xaside yi kon sëriñ bi noo ngi koy nuyu baax di ko ziare sëriñ bi asalaamaaleykum ñoo ngi lay ziare bu baax a baax di am mbégte ci tab bi nga tab bi jotaay mhm. wa الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام على نبيه سفيه العالم وعلى آله وصحبه ما أهمل فوق الألواح والأوراق القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته dama dégg yéen ba nga xamante ne bii tey du ma mën a am itam lu ma leen ameel loo xam ne du ma ko wax ndeysaan sama diggante ku tedd ki la ak xasaay bi ak yéen ndeysaan ndeysaan dama leen a teewlu mhm. am na kenn teewlu boo xam ne boo ko teewloo waaw bu ñu nee la jëlal kàddu daanaka doo mën a wax loolu ma mhm. dal fii toll waaye dinaa tënk rek mhm. jàpp leen maa ngi jàkkaarloo yéen. dëgg la. ku ci nekk am na lu ma la amee. ndeysaan. loo xam ne ratib ak atid ñooy samay seet. dëgg la. ku waaw waaw bisimilah waaw li ma waaye du tee xaal ji la waaye du tee rek. wallaay wallaay <laughs> dem na bu yàgg. damaa xam dimension bi leen ko tedd ci yóbbu. barki sëñ Tuubaa. ndax dama leen doon teewlu. Mhm. moo tax ma ni leen ku ci ne am na lu ma ko ameel. ndeysaan ndeysaan. waaye dinaa dindi rek. Mhm. dëgg la Pape li doon wax ci taalib bi. Mhm. na. xaj na neex na xaj na aw na yoon waaye man mi ko bind mhm. Mhm. nag euh, maay xam ya ca mhm. damay ñëw rek ci bila sa cin al sa cin bal sa cin te ku tedd ci ne billaahi min muharram abdan xadiman maakisan bil karam bil karam dafa dugg ci mbootum sëñ Muntaxa ndax ma nga dalu ñun ñoo ngi dalu sept cent ak quatre dafa soree li muy nekk fi ñun bariwul zalun la nekk diggante sept cent ak quatre dafa sore waaye faw ñu jéem a jàng mooy kat ak li nga xam ne moom la diglee ci bis bi njëkk ci muharram mhm. bu ñu ko jàppee ilham mhm. moom du wàll yi mooy mhm. kilifa wàll yi ci tool mi ci mi moom moo fi nekkal lislaam aalam waaw mooy xalifa bi lislaam dëgg la ci ñu xonq am na loo xam ne bala ma koy wax màggal gi ñëw ba jàll mhm. lii xew yëpp ci àdduna bi malaayika yi ñoo bëgg ñu xam ni solution bi ci sëriñ Muntaxa la nekk Tuubaa la nekk mhm. la solution actuelle mhm. la solution de l'ensemble des problèmes que nous ci suñu quotidien maanaam li ñuy dund waaw ak lay jóge ci Tuubaa bi ngelaw li di ko indi ba ci ñun mu mel ni daf fiy juddoo mbaa daf fiy sax te bokkul <laughs> di fi romb di jàll ak sëñ Muntaxa ni muy fexe ba koy dàq waaw ci dapon ak jàll ci mm-hmm. dapon ak jàll mm-hmm. ku mel ni moom dadul xëj yi dadul jañ puuse ak tiire di ko def ndax ni muy dunde ku tedd ki la mm-hmm. moom day bàyyi ku tedd ki rek lu war a am rek kay am lu war a am door oh. moom lee doon lay dunde dafa kamaat moom lii lu ñu ko wax yu la nga mhm. ya yonent la ñuy wax mhm. hmm? yu sëñ xaadim wax hmm. ya na ko léegi yonent la ñuy wax yu hmm. sëñ xaadim mhm. wala sëñ ablaay am na ko ko ci wax wàll yu la ñuy ilha moom nañu jàpp ne al muntaqa la le choisi al muntaqa moo tax ma ne ko su ma lay nuyu dama lay nuyoo lil muntaqa sub ma yasurruhu ilaa nihayatin wa xidmati saqabala te wakkaana xaq mhm. loolu laa koy nuyoo ma ñu xam ne fi ñu toll nii moom moom dafa doon yonent bi dafa doon yonent bi ba noppi nag ku tedd ki teg ko bi bi mu doonee noppi ndax ku tedd ki bu loo yonent bi du la doon loo boppam de xam nga mhm. suñu wax léegi am na loo xam ne dafa man a egg ci wax mhm. moom ñu nit da ko tey indi te doonu ko Mm-hmm. moo tax comme kuy teg yonent bi la lay doon loo du la doon loo boppam mm-hmm. ah, man maa wax de man Moodu Mbacke maa wax mu jaare rek mm-hmm. waaw du moom jumal fottu sax lanaa mu jëla jeytin waa amal yërmande moo tax ñuy wax ñaari nit ko bolé ñu ñëpp di ko jàmm aussi général yërmande bi képp tax mu fees waaye nañu hmm li sëriñ xaadim doon wax ak sëriñ ablaay xasaay bokk na ci limay may sama bopp di ko baaxe mbokki tal bi jang jàng xasaay hmm ko ko ci man bis boo jàng xasaay dee ca bolé la mu bind ci bis ba ak ci weer wa boo ko amee waaw ñi nga xamni ñoy ñooy waajal bis bi tam lu ñu am ci xasida goo xam ne bind na ko ci muharram rek ñu ko cay boole ci la ñuy jàng doon gën gaaw mhm. bëri te man koy baaxee sama bopp di ko baaxee ñëpp mhm. ndax lu baax lu nekk day lu ko gën a baax lu baax lu nekk day am lu ko gën a baax mhm. fekkente ne yaa ngi jàng xasay ci tool nii ñu ngi jëm gaaw jëm ci dibéer ñu ngi ci guddi dibéer te mu wax la mu wax واجحني في الفكر كل ليل مع نهاره وصاب نيلي مع نهاره واجحني في الخير كل يوم وكل شهر وأقود قومي leer na nañ mbay ji waay mhm. waaw moo tax ndeen nag dafa ndar jekk nga ci guddi yeeg bëccëg ñoo am ak waxtu yi ak biit yi ak semaine yeeg weer yeeg at bi mhm. ak naa muharramun wa akrama safar maa rabbi hay ni wa antoya safar safar boobu borom xam-xam yi nan nañ koy firi safar mhm. bu dee ci langue moderne mën nañ ko def lettre wala enveloppe wala yu demee noonu mais safar boobu mooy lan mhm. da ngay dem sa xasaayinu rabbi ku texat bi wa zazahat li xëy ara asa bi yaw frawa bar saf kooku la moo xamante ni bii mbànd leer rek la waaw te leer bi leer bi mu fees mhm. maanaam moom dafa yor ñu ko déggal malaaka ñu ko déggal yoo xam ne su ngeen ko tasaare la ñuy tasaare la ko jëmee waaye yéen a ngi fàttaliku màggalu gaaw ñu ne zéro quatre mhm. dama yaakaar ni scientifique yi xanaa xalaatuñu dëgg la de ren bala maa wax insha allah moo ko fekkee jàmm damay bàyyi ba màggal gi jàll mhm. bu màggal gi jàllee war nañoo wax waxtaan boo xamante ne bii Mm-hmm. borom xam-xam yi nga xamante ni bii seen xam-xam dafa màcc ci wàllu temporel. Mm-hmm. ñu xamal leen lan mooy xam-xamu rupture. Mm-hmm. peut-être que xam-xamu yàlla la yor yorul xam-xamu nit. wax ngeen ko fii léegi. ndax lim na la ilma bi abada. parce hmm? que la koy doxalee. waaye xam-xamu yàlla la yor adada maalumaati rabbina alim jaman bihi wahabta li khayra ulum wahabta li khayra ulum alla mhm. ya munna wala man na bi ulumil asfiya wa bi kitabati kulla wax na ko léegi mhm. man su ma nee am na lu ma leen ameel maa xam li may wax mhm. waaw dama fees nag ba du may ci dama leen di bàyyi eh, ngeen eggale seen waxtaan ndeysaan moom daal wax dëgg yàlla man fan yi lii sama liggéey mooy nag wax dëgg yàlla di xool baat yi cant yi nag waaw bay yi mu nekk

Eh, di ko ñaanal yalla mu yàgg fi loolu ti wër ndax bëgg gi sëriñ bi ak bëgg gi xaside ak bëgg gi ñi koy yëngu ndax eh, kum ci xol muy sëñ Ablaye Diop Bichri muy sëñ khadim Ndiaye Kaar muy sëñ salihu Samb kum ci gis rek bo xasse wax wenn bayit nekkutu fi da na tollu toll moment boo xam sëñ Jibril dootuma ma mëna sétane genn kenn kuy waxtaan ci xaside yi man ko tax mu ne ndax fam may yobbu motax ndax daram da xajul fi ci adina te sëñ Touba nak manam heure bu la ay mayam yéemee wala nga japp ne logiquement mënul ne tëleeg yàlla ngay wane tëleeg yàlla ngay wane lu sëñ xaarim wax yàlla neen mën naa rey gileem waaye du ma ko jaaxaanal waaye xaj naa xaja mën naa xajal gileem ci bën bënu puso nag waaw ki mën a jël gileem xaj xajal ko ci xam nga loolu logique nangu waaye gëm nga ne man na ko buñ la waxee yàlla gëm nga ne yàlla man waaye bu sëñ Tuubaa ne yàlla defal na ma jaxalta yàlla ma defal lii te danga balaa wax loolu da ngay natt diggante yàlla ak sëñ Tuubaa tawhid ji sëñ Saaliw sëñ sëñ Jibril ba noppi jërëjëf jërëjëf dëgg yàlla waaye day day day firnde rek gis nga suñ muntaxaa moom mënta ñàkk mu mel na moom lii bi mu koy taarif sax dafa ne woon da koy def projet tuddee ko al muntaxaa ànd ak i tool man bi sax ne woon na ma yow chargé de mission nga ci loolu ñu def ko ay tool yi àllal ba yët ko sëriñ bi nga xam ne moom vision am moo moo moo moo sore lool ci diggam ak sëriñ bi te mu jàppee boppam serviteur ànd ak i débiteur yi waaw ak ak député yi <laughs> imaginer yërmande jooju toog xalaat ni am na ñu nekk ci dëkk bi te xëy na mënuñuy euh, xéewloo ci ndawal mu ne damay damay créer ay ay ay débiteur muy muy lakk gratuitement di jox nit ñi xoola xoola xoola yërmande jooju fu mu nekk waaye suñ balaa may ñëw suñ saaliw euh, xaside gi sëriñ bi bi mu koy jox waa diwaan bi yaakaar naa ne doon na ko doon na nañ ko tekki ci wolof maa ngi maa ngi fàttaliku way xam buur yàlla tàbbal ñu lépp lu ñu mës laal ci loxo yi ak ëggu mhm. tebal ñu fu nu masa dema ci tànk yi ci tànk yi bal ñu lu nu masa xool ci bët yi ci bët yi tebal ñu lu nu masa déglu ci nopp bi ak nopp bi day day day pédagogie firi bu gaaw nii nga xamante ni mënuñu jàng xasida day ñu koy ñaan di ko dugg ñaanaane suñu borom mu jéggal ñu te te li muy wax tamit dafa am solo gis nga récupérer gis naa vidéo bu yàgg boo xamante ne dañuy gars yi ku mënta bàyyi yi ngay jëfandikoo nga bàyyi ma cest à dafa fekkoon sa à loolu la sëriñ bi soxla génération yii ñu récupérer leen teg leen raxas seen xol dugal ci sëñ tubaa ak xasida yi loolu nag suñ borom defal na ko ci tawféex tawféex ji ma doon wax ci ci ci ci sëñ wax ko ci waa isbu tarxi moom it am na ko ci centre de redressement dégg nga coow lañ fa coow yooyu yëpp waaye loolu da doon wane ne rek moom liggéeyam bi naka jekk mi ngi ci kon ndaw ñii tamit sëriñ bi soxla faw ñu jël leen am lu pratique yu ñu tàggaleek ñoom waaye nag boo dindee pratique yi cest dire que ci wàllu ci wàllu ci wàllu sevrage dañuy wax ni dangay jox nit ki euh, alternative c'est-à-dire que nit ki boo ko sevre ci dara maanaam ku doon jëfandikoo da euh, maanaam ñollu walla dara nga xañ ko ko da nga koy jox leneen leneen li nga koy jox nag mooy lii mu am mooy jërëjëfe sëñ tubaab mooy te tey ji mu nekk loo xamante ne lu universel la fu ñu ko tuddee tudd bëgg sëñ Touba euh, dama damay wax ne sëñ Mourtada lu ko waay waxal moom bëgg sëñ gi moom lu wér la kon nag foofu te it foofu nag la gars yi sëñ Mat Jaw Faxa loolu la daan wax foo la gars yi di di di rawante jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax sëñ Saaliw dafa am lu ma bëgg indi jot naa cee laaj sax léegi euh, sëñ sëñ Xaadim cest dire que benn ngi ni li ma li eh, xasida gi ni mu ni mu ñëwee sëñ bi wàcce ko niveau bi ba ñëpp ñu mën koo ñu mën koo jëfandikoo mu jàppandal ñu ñaani wan ñu ni nii ngeen di ñaanee nga xam ni eh, day am kilifa goo xam sax day wax ni bu leen jàngatee xasida yi ba noppi sax bu leen fa nekk di ñaan raayoo leen rek te dem ndax doo fekk ki la ñaanal li nga fay dem dafa dafa def leneen kon sëñ Sadio foofu rek ñu dugg mhm. ji bi sëñ Xaadim santaat na bu baax ak sëñ Abdoulaye mm-hmm. ak sëñ Pape mu ko waxee mm-hmm. ci Cheikh Ahmad Ibn Ousmane taalif ko jàmbaar ji ñu doon déglu léegi nga xam ni la onze ji weesu di bis bi ñu taxawaloon ci Masalik sëñ mi mi siiwoon ko dama mm-hmm. ko wax ci këram ci bëccëg bi ni ko képp koy liggéeyal sëñ tubaay góorgóorlu bu day ak yow dina xam ne am na ndey waaw yow yaay ki àngu doon ndeyu ndaw ndaw lu mën a jóg yëngu ci sëriñ bi di yitteem wala xalaatee rek baa xelam daj la rek dina xam ne am na ku ne ci ginnaawam te di jëf am ku ne ci sa ginnaaw daa gën a wóor waaw wala dañuy wax ni xer wa téye sàkket da cay daru waaw xer wi du bañ sàkket wi daanu muy dem fële bàyyi sàkket wi fii kon sàkket wi day daanu Cheikh Modou nag kuy liggéeyal sëñ bi nii la la def mm-hmm. waaw xer wa téye sàkket da cay daru sëñ Modou bàyyiwul kenn kuy liggéeyal borom Tuubaa fu ne jaar na fa ak ñun ci teraanga mm-hmm. fu ne foo xalaat rek jaar na fa ak ñun ci teraanga dëgg la te ba nii tey la rawati ba ko mm-hmm. da ngay xëy rek ndawam ñëw waaw waaw dëgg la da rek mu yónni ndaw lu gaaw loo xam ne da ngay jékki gis chiffre ci sa téléphone bu la woowee wax bu gàtt la lay wax sëñ xaadim dina xëy jokkoo ak yow pare na ci yow da ngay toog rek waxtu woowa jot rek loola xew la mënu daa wax ne dama leen a yoree li salaire salaire mhm. war leen a fay musu ci teg loxo yàlla na ko yàlla yàggal amiin amiin moom moo leen njabootam maa ju baax ja amiin maam Thierno Ibrahima Fatima yàlla fi yàgg te waaw li nga wax euh, daf noo yàgga daf ñoo mës di plaider la moom Cheikhul Khadim moom Cheikhul Khadim ci borom bi plaider nag musul plaider yam ci ñi jébbalu ci moom xeetu sayyiduna Muhammad lay plaider ummatu sayyiduna Muhammad lay plaider xut ummatal Moustapha lay wax wala an kulli mafsadatin xut ummatal Moustapha fii amaa yajur lahum fii an kulli mafsadatin léppam di plaidé jaam ñi mm-hmm. dégg nga na koo wax sax ni ko wa innahum wa inna asawka mm-hmm. yaa ahad li ghaflatin lam yusriku bi ka ahad mm-hmm. waaw dégg dégg dégg li mu wax boromam ñun buñ ko moyee sax moom yàlla sëñ Tuubaa nee na ko même buñ la moyee càggantee tax waaye ñoom duñ la boole keneen kenn nga yaa ahad mm-hmm. kenn ki nga doon lam yusiku bi ka ahad duñ jël kenn di ko teg sawet xam ne ni yaay seen borom dem ba koy wax wa innahum abdaanuhum laa taqdiru ala balaika xanaa looluy di wax seen yaram yi seen yàpp yaram yi abdaanuhum seen yàpp yaram yi laa taqdiru attanul mm-hmm. mënul résister ala balaika ci sa balaa li don ngir faible gu nu tey la tey tey wax boobu orang la war a gën laysa tamilu abada ila min huna ila hada seen xol yi mësta jàng jëm ci kudul yow yow yàlla ya, ya, ya, ya seen borom yërëm leen bal leen nga wax wàllu ñaan waxuma plaidé mais wàllu ñaan li tax am kula ni bo ba pare jarul ñaan moom ñaanal na pare ñun luñ soxla lu jariñ ragal lu lor baatu yassir lana jamia ma yanfauna wa kuffana jamia ma yaduruna xanaa doy na yow yàlla yassir lana boo koy wax da ngay remplacer sëñ Tuubaa yassir lana jamia ma yanfauna nag nu yombalal lépp mbooleem li duy jariñ yombalal nu ko wa kuffana nga fegal nu jamia ma yaduruna lépp lu nu war a lor xanaa loolu rek doy nag ñaan ah? mu wax ko feneen ni ko yaa man mata taqul li amri kun yakuni xaatib xadaa a xaajati bi lafdiku dégg nga yow borom bi nga xam ni mata taqul li amri kun yakun innama amruhu ida arada sayan an yaqula lahu kun fa subhaanallazi bi yadihi almalakut mu ne ko yaa man mata taqul li amri kun yakuni xaatib xadaa a xaajati bi lafdiku te moom lu mu ñaan yàlla may na ko ko yooyu mu ñaan yëpp yàlla daf koo may ndax maddaliyal baax yi bi jaaxir raax yi maa rumtu bil xalbi wa bil ci darajey rasulullahi maa rumtu bil xal bi li ma ñaan ci xol te génnewuma ko wabil awraax ak lu ma bind ngeen gis ko ma ñaan ko yàlla jox na ma ko malakani dunya wa axra laahu suuli wala ilaha illa allah lu jox na ko lu ma ko laaj alaxira jox na ko kon ñun ci biir ñaan ko nangu la ne boo dee xasida nee nga ñaan gu nangu. léegi nag jëf joo xamante ni fi mu toll nit day julli ba noppi jóg rafet njortu dem waaye du xam ndax nangu nan ko sëñ Tubaa nee na yàlla sama mbind mii na ko def mu kawe julli ñu nangu yi nga yendoo woor yendoo xiif def lu ndaw sa koor gi jàllul validé wuñ ko sëñ Tubaa ni sama mbind mi yàlla na kawe woor yu nangu yi اجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصومي وصومي اجعل كتابتي مثل الحج والصوم وصلاة أهل النج خسدا نغوك اجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور رسلي سمم مني يا الله na nga ko def mu tolloog yonent yëpp daraja wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mu taali añ li wajhi rabbi wa bi kalaami wa bi isaara idil murida yatlubul inaara euh, taxawal euh, kii ngi wax ñaan léegi dafay wax ñaan sànq ba léegi mhm. yàlla lu dul dem aras di yàlla mën na ko may ndax ku doomu nii iza sa'alaka ibaadi anni wa inni xaribun ujibu dama xamul sax dama foofu dafa am question laaj sama bopp nag laa koy laaj xam naa ni mënuma koo tontu waaye damaa xamul Cheikh Ahmadou Bamba ñi ko jiitu woon di ay way baax li mu doon ñaan yàlla la seen xel yi dajul wala bu ko seen xel dajee xanaa seen fita ko ñemewuloon a génn <laughs> maanaam ma ni Cheikh Ahmadou Bamba laa wax waaw li mu doon ñaan boroomam li mu osé woon di ko ñaan boroomam moom sëriñ Touba ci xasidaam yii li mu osé woon di ko ci ñaan yàlla dama ne ñi ko jiitu woon ñu baax ñi seen xel moo ko dajul woon wala seen fita ko ñaanul woon ñaar yi benn am na ci question la question la. tiim am mbind waa taxawal déet. kii waaw déet tiim am mbind tiim am mbind. <laughs> ni ko na tolloog sa yonent yëpp dara de. <laughs> lu jar calcul la. Uh-huh. Hmm. nit ñi yonent yi ñoo ci gën am de. nit dina doon yonent ba noppi du doon mursal de. Hmm. nit dina doon nabi te du doon mursal. Hmm. mursal beneen grade la ci kaw nabi. mu ni ko ka kulli mursali sama mbind mi na tolloog daraje yonent yépp parce que amul fu mu waxee xaw ko sax yaa man waxabtali dégg nga li mu ko wax yaa man yow mi nga xam ni nanga ma defal sama mbind mi tollook yonent yépp daraja yow mi nga xam ni yaa man waxabtali hmm. yow mi ma jox juura rusul yi hmm. mboolem ñi nga yónni woon seen pay yi yaa ma ko jox hmm. eh waay ndaw sax te wax nag sànq si ñaam lu am solo da wax ba mu yàgg rek mu mel ni dañ laa rof baat nga ni digganteem ak yàlla. digganteem ak yàlla li fa am. ku mu am ci sa diggante ak yàlla nga mën a plaider. waaw. xam nga lu fa am. ak xaritoo. waaw. sëñ ji mii am na décision bu muy jël ci këram neexul njaboot gi. du nu woowi magam du nu woowi rakkam xaritam la ñuy seeti. waaw. waaw nit day décréter ci këram dara. du ñu magam du ñu seeti rakkam ab xaritam la ñuy seeti. xarit moo man ca xarit ba lu ne. est-ce que yéen a bu dégg li ma bëgg a wax. waaw yow rek yow kay. <laughs> waaw léegi xarit lu koy tax a doon. Mm-hmm. Mm-hmm. ku ci ne ci ñun ka nga gën a xarit woon ci sa kër mooy ka dàq jëf la nga digle ka gën a bàyyi la nga tere wala. waaw mhm. Cheikh Ahmadou Bamba lii la def ba doon xaritu yàlla. jëf lim digge bàyyi la muy. waaw ka gën a sori la nga tere. sa kër ñun ñii rek nga xam ne ñun ay nit lañ buñ géntee sax léeg-léeg ñu xëy bëgg koo nettali muy të. sunu kër yi ñi fa nekk moo xam ay soxnaa doom la. moo xam lu ay surgaag ñu mën a doon. ka ci gën a jëf sunu suñu li nu bëgg. ki fa gën a bàyyi li ñuy wattuloo waa kër bi. kookaa gën a doon sunu xarit. dëgg la. Mhm. lii tax Serigne tubaa gën a doon xar yàlla. waaye doon waxee ku bëgg la nga bëgg mhm. xarit nag day changé dëkk rëbb xarit ba waaw mhm. Mhm. ndax dégg nga ba waaw xarit day changé dëkk moo taxoon ngay dégg mu naan diw foo bëgg a faatoo te alxuraan wax na wa maa tadri nafsun bi ay ardin tamutu xanaa du yàlla na ko kenn du xam fooy faatoo mu ne diw foo ko bëgg a defee sëñ Masamba Diop Samb loolu la ko waxoon foo ko bëgg a defee parce que mooy xaritu yàlla moo ko wax moo wax wallaahi inni yaqillun avant sax amna fum ñu joxoñ qasida uh-huh. mom loolu wax ni loolu ma ngi ca li wax ma ngi ca xasidatu laxat jaakum uh-huh. wax ni aqsamtu billahi uh-huh. dégg inni li nabi abadan xillun wa wama abahu. Ya abahu. yaabaahu maa ngi giñ ci sama borom ni man mi ahmadou mbàkke mi wax ma don ci yonent bi faw xarit ak soppe lu ma bañ rek la bañ nabiyina Mustafa xayrul a xarani fi kulli shay'in wa ma yabaahu wa abaahu li ma soxla mooy baat bi ma soxla mooy baat lan la mm-hmm. mu ni tara qasaida tawhidi mm-hmm. li malikina mm-hmm. sawaahid man hatan li baahu dégg nga tara xasaida la wéetal yàlla la tara xasaida tawhidi li malikina lu loolu suñ bàmba mu ni sawaahid al xaqi seede waa man hatan li baahu tere ko daal cay teg ni wallaahi inni yaqillun lil ilaahi bihi ibun lahu duna kasbin fihi ujsahu wallaahi maa ngi waat man ahmadou bamba ni inni naka man ahmadou bamba xillun lil ilaahi maay xaritub seen borom ab xarit nag sañ naa changé décret xaritam li taxoon mu man li mu man ci saayir lii sëñ xaarim doon wax ni boo ko waxtaanee ci moom ñi lay weddi ñooy ëpp ñuy noppi waaye day xarit rek nag. affaire bi daa garaaw waaw ba mu doonee xarit la loolu yëpp valable ci moom. ba mu demee ba doon xarit. ci boromam la loolu yëpp valable ci moom moom Cheikh Ahmadou Bamba. moo tax mu doxee noonu mu doxee ci diggam ak boromam gaa yu baax yi fi jaaroon yëpp ay liggéeykat lañu waaye bi mu ñëwee daf ni man la yàlla teg ci seen kanam. qaddamani llahu ala alqudaami bil muntaxal musabbitil aqdaami wax ni ñoom ñépp seen paye yàlla jox na ma ko xustu mawaahibal kiraami turaa la daa taxarrubi kafaani sarra ci sama tuurank ga la ma yàlla fegale aw ay wax ni lu nu mësoon a jëf ñuy aw yiw ñoom ñu fi mësoon a jaar ca aadama ba ci man ku fi mës a jëf aw yiw yàlla ret rappel na ma ko ba ma jëf ko li ma ko jëfee ba pare ku mel ni man dootu am radaliya allahu alladi qad fata min al xuyuri wa misaali fata wa misaali fata xam naa bu kàddu ñëwaatee rek. waaw déedéet macha li nga def nii kenn du ko def affaire bi da du nii maanaam dafa war di neex du yi daal ni nga koy defee nii yow tamit. teg ko ci teg ko ci yoon xadamalillahu ala alqudaami ñëwaatal foofu doxal léegi léegi ñoom ñëpp ku ci nekk nag am nga lool sëñ tubaa moo confirmé ne bi nga koy am yonent bee tax najaa bihi llahu nuuhan safinatihi wa jaahu kaffa yaaqoobal baliyaati Mustafa akhrajal man naa ni min dogal ma fofu do ma door a ñëw ci seen blaay. ndeysaan da nga bax rek. waye fi mam adam la ko hmm ndax suñ tubaab daf ñoo wax sax ni. Hmm. usjudu li Adam sax. Hmm. rasulullah tax. Hmm. cee. leeru njool makka ga yalla def ci ndigi mam adam mo tax yalla ni malaika yi adam deug la. suñ tubaab li nurhi sajadat أملاك أملاك مرسله للجد آدم بابسيخ طيب، نورن فيه منقتما تميمية وسلم صلى الله عليه وسلم آدم مام آدم إبليس فخي بمو جين مفوفا عجنا جمو نكون سيدوانا أنا بكو يالي جيجلي سيغراس أسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاهي فاضل بالغفران آدم من بهد هبات من انهار وجنات انا واتي تي كو سوف ما بيمي فات ابليس سا سو نيك دا نكو نويو جيم كو ديفلوتي اب سفان واي منوت كو ديف سنتو بان سي غراس ا محمد يهي لم يمل للذنب ادم موس له داه اللعين من قد عزما صلى الله عليه وسلم سنتو بان نينا سين غناو نوهم بو غال غا تيري سي درجه نجول مكه toftal ca Yanqooba jooy na doom ja ñeent fukki at silma xana lu mat ñeent fukki at Sëñ Tuubaa nee na bu gis ba delloo ca moom c'est grâce à lui sallallahu alayhi wa sallam najaa bihi llaahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu kafa yanqubal baliyati najaa bihi llaahu nuuhan ca mi mu yeba bi safinatihi wa sina yanquba ama asbatu ka ama sallallahu alayhi wa sallam <laughs> maam Ibrahima ba ko Namrud mbaqee bàyyi mu jëm ci sawaras yi سين توبا لينا موسى برام ني خولنا يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم سيغراس رسول الله به قدت نار ابراهيم باردة مع السلام فهذا اقرب عادات به قدت نار ابراهيم باردة مع السلام ومن كيد العدا سلمى صلى الله عليه وسلم كيد العدا سلمى عليه الصلاه والسلام يوسف تشتين با اك جنم دم ني ادابتي كو فلي سيغراس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين توبا نينا جناتام تي كاسو با دلو تي بالي با doon wasiiru dëkk ba ba noppi doon yonent c'est grâce à sayyiduna muhammad bil muntaqa axrajal mannaanu yusufu min zubin wa min kaydi man an hahtada walama looloy teen ba bil mustafa kaso ba axrajal mannaanu yusufu min sijnil matini wa min tilkal xiyabaati sallallahu alayhi wa sallam Souleymane dadaa war ngelaw di dawal sëñ Touba nee na c'est grâce à Seydouna Mouhamad Daouda dadaa def weñ mbubba mbubbi koŋ ak i dàll di sol sëñ Touba nee na c'est grâce à Seydouna Mouhamad bihi ulina li Daawud al hadidu bihi hawa Souleymane tasxiran kama fuhima léegi la am ku fi tudd yaakaar naa yoru sax 40 jours am ya ca profondeur ca géej bu ko yàlla génnee yaram wa suppiku يلا سخال غرب مو بوكو يرام ودل نملون سن توبان سغراس اسيدنا محمد وصاحب النوني للمولى تجا فنجا فنجا بالمنتخى فضلها كل قمتي صلى الله عليه وسلم سن توبان وموسى خري بهرو خلصوم جال فراونا دس تي درجه نيول مك صلى الله عليه وسلم Isa buñ ko dàqee ba war koo jàpp daaj ci croix bi yàlla ak jëmmam asamaan. remplacé ko ñu daaj kooka c' est grâce à Sayyidina Muhammad bin Moustapha Bahru Moussa. kanamun falixan fan fala falaxa jëlay. kama mhm. bihi ruuxu Isa. Mhm. li sama isama. sallallahu alayhi wa sallam doy na kon. <laughs> jërëjëf sëñ Saliou. Eh, rek war na ne nii. Mhm. ku mës a ñëw ci suñu borom rek. da ngaa dikk sa kaas sëñ Ablaye mu xelli la nga naan. mom mu ne ko kas ya ngeen man ya nga mandale ci man mandale man te ni ma mandale da gatchal geej ak ya daw ku uusu ko taskhini bi hadha busharatin wali qutta faydan ax jalal bahra wal fulka cheikhul hmm. khadim ay mayam muno ko tak fumu mu muno mënoo ko takk fu mu seringbi. waaye sëñ Ablaay buñ ñëwee ci titrage khasside yi fi ngay xamé serigne bi xolal dama bëgg ñëwaatal ma ci titrage maanaam film boo dem di ko seetaan ci cinéma. titre film bi moo lay may nga dagg bee dugg. parce que titre bi lañuy ñuy joué. xasida gi boo ko tiimee titre bi rek. yow li nga bëgg lu nekk fi ne nii loo loo aajo joo am xam nga xasida ga ko man man nag karam naa mooy sama préféré. man sëñ xaarim karam naa ni may def. Eh, kéem taanu suñu borom la. ndax xasida gi ni ko sëñ Touba Aana Baana. Eh, yasir rujoohi li Touba wax mi nii waxi nii. azal wara wal tutib lii sama iskaana lakka sama wal aradi wal hawa ubila musharikin li yarul man sirkuhu baana maanaam xasida gi laataa may xam kii bii sax maanaam dafa maa neex noonu rek lé balaa ngay xam nag maanaam ku ci ku am wërs ku bëgg wërs xam nga xasida nga ngay jàngi mhm. gaa ñi bu ñu bëggee kaaraange xam nañ nga ñuy jàngi mhm. gaa ñi bu ñu bëggee mucc ci cat xam nañ nga ñuy jàngi mhm. gaa bu ñu bëggee texe léegi ni titre yooyu laa ba nga ñëw ci ay saadatul muridin ay nuru daaree ni ay jaalibatul maziyaat hmm. jaalibatul maraaxi bi hmm. ah ay wa kaana xaqan titrage yi laa bëgg nga ñëw ci eh, ñëw ci nga xam ne eh, tey lenn lu ci nekk rek ba mu koy wax nag moom taxul ndax laataa muy jege Mbàkke Baaru Jolof yàlla nee na ko li nga ma ñaan yëpp may naa la ko hmm. waaye nun la sëñ Tuubaa taxoon ñun moo taxoon nun tawféex jee taxoon moo tax li sëñ si Muntaxaa naan dañoo ma nekk ci xaasu titrage yi laa bëgg nga ñëwal ma ci waa wax nga dëgg ñu ngi sant généralu sëriñ Touba bi. Mhm. ci wooteem bii nga xam ni euh, lu nu neex la lu sedd suñu xol yàlla na ko yàlla yàggal euh, teraangaam buur na ci sunuy kër buur ci sunuy loxo. ñu mhm. ñuy yëngu ci sëñ Touba ñëpp nii lañuy defal léeg-léeg sax ay euro la ñuy may. Mhm. loolu lépp rek ngir xërëm ci sëriñ bi ak bëggam xasaay bi. te xam ne ñu ngi xëy ci toolu sëñ bi di ci gont te moom sëñ bi rek lay dund. yàlla yàggal ko. Mbacke Balla sax kontaan nañu lool ci wooteem bi encouragement la ci nun soññee la ci nun ñaan la ci nun nu mhm. ngi lay bëggee fu nu toll di la ñaanal fu nu toll di sant euh, Serigne saariwu ci duggaat bi mhm. di sant sëñ Pam Ndiaye ci wooywu neex wi jëf mhm. yàlla na yàgg euh, sëñ Hamidou da ngaa wax léegi lu am solo moom nga tëje danga laaj-laaj bi muy tiitrage bu xasaa sëñ Tuubaay da nga ni moom bi muy dem bi jógee Mbacke Bari Jolof yi dem ñun a tax waaye moom nekkatul pour moom. Mhm. loolu li koy firndeel soxna Faat Ja mbakke moo ko nettali taawam. Mhm. nee na biñ nee suba la sëñ Tuubaa dem guddi googu daf leen a dajale kër gépp ñu daje. Mhm. mu génne ay kaasi xolar kaasi xolar yooyu mu daan xellee. mu génne ci yu bari ak ay baraada. mais di waxtaan ak ñoom ci góoru yàlla yi fi jaaroon kenn par kenn. kenn par kenn xam nga sëñ Saliou laaj na ko léegi laaj bu am solo. ndax ñoom. dañoo mënul woon a ñaane ni sëriñ bii ñaane mhm. wala dañoo am loon fitu ñaan loolu loolu lu am solo la lu mat a seetu la waaye daa fekk ni sëriñ bi la tànn ngir mu war a xeetali si jamono moo tax sëriñ bi li ko yàlla yenkewal ba man koo ñaan yàlla kenn du mën a xalaat loola waaye itam sëriñ bi dégg gi mu dégg yàlla pour ñaan ko la kenn amul ndax yarant bi waxoon nañu sallallahu alayhi wa sallam jullit war nay ñaan yàlla ba ci dàllam wi dagg fil bi mu koy takke sax bu mu ko jomba ñaan yalla ndax yàlla lip dara lepp la man jëmam dal la deful kenn ngay yalla mo waaye bu dut loolu lepp man nako may jam kon lu am solo nga lacc mhm. soxna fat Ja na guddi googu muy waxtaan ñu ci nitu yalla yi kenn par kenn ku fi jaarul mhm. nee bu guddi gi sori lol sëriñ bi ni ñokket dal di dem ba tolloog mbaar ma ca mbaar ma la dem genn fa bi fajar gi di jot ñu wommatal ko fas yi mu ñëw fasam moo tudd awnullaahi ñu teg ci mbalaanu sooy yu vert nee na déggali fas wi daa mel ni nikel mel ni xaalis weex tàll nee na sëriñ bi war di tàggatoog njaboot gi ni li ma leen doon wax boobu ba léegi dama leen a bëgg a waxtaan ak yéen ni leen bu leen am njàqare ci sama dem bii bu leen ci am njàqare bu leen ci am tiis sunu boroom mi ma sàkk mhm. te sàkk ñépp moo yëkkati bi yanam te yan bi mu yëkkati ku am bopp nga àttan ko nga ñàkk koo àttan teg na ko ci sa mhm. waaye kenn àttanul yan boobu ndax kenn mësu koo yëkkati ba mu àgg ci say woom man ahmadu mii maa ko fas yéene yëkkati ni ko dangiñ yëkkati ba àdduna bépp di ko séen mooy sama dem bii ni bis ni ki tey jii ma taxaw di tàggook yéen fekk buurub àdduna mhm. boo xam ni ñépp a ko wegoon ragal ko lu mu santaane ñu def ko mhm. ma folli ko ba kenn dootu ko xam mo gëna yomb ci man julli ñaari rakka fekk ko xamni ni musta yoni kenn mu dem ngir ñàkk daraja ma fal ko ba aduna bépp di ko mo gëna yomb ci man julli ñaari rakka kon wilaya taxu may dem fekk na ma am ko sekk waye dama bëgg bis niki tay tukki bi ma jëm ak yalla sama borom bu dootuñu mën a tàqali ko taqoog yenantu bi alayhi salaatu wasalaam ba kenn dootu ñu mëna takale ma melni ni badar ni ñu mel ci mom li moo ma tax may dem talal len loxoy ma ñaanal len kon wax nga deug bi muy dem mhm. ñun la bëgg dimbali mhm. tax mu wax waxam joju nga laccé lu am solo muy xasaa yi mom mhm. ni mi bindé arab ni lay titré war titré azam du yem ak kenn dafa am kenn ca Mauritanie ndax Mauritanie lañu yak yàq touba ci ay tag gisaguma Sénégal ku ko wax ñom lañ ko yag yak ci ay tag motax bu senegal bare ciow rek lo wax ñu ni diw daa tuddu sama kilifa ne len fi ñuk dem ba Mauritanie duñ ci man dara déedéet ndax koo ni sa kilifa nee na nangam sëñ ju lu ci rafet mu mer da hmm. leen fi ñukk dem ca ña nga xam ne sët lañ ci yenant bi te dégg araab lool gekk ko te wax lu ne sëñ Tuubaa hmm. dafa am ku ni ko waman yusaawika wal asiyaaqa martabatan fa kayfa yadri min ayna tookalul katifu xustal xisaal allati tasmu rijaalu biha lakinnahu qad kafaaka al ilmu wa sharafu <laughs> yow seigne Touba. ku lay tëkkale ak kenn xamul fumuy taxaw xamul fumuy djublu dafa reer xamul li xew kooku nandaluñ ko amul information ku lay tëkkale ndax yow luñuy ñuy tagge yalla yàlla laxas nga ko làq nga ko ci sa borom làq ga lepp jikko yi ñu daan nitu yalla wala ab yanantu lépp nga tey sa loxo njub képp la doy lo njub képp la doy ci njub rek nga nek ak xam-xam ak jaamu sa borom am keneen kok bim koy tagg dañu sëñ Touba dafa nangu araab ci nun xam nga fi ne nii boo nee diw dama ni dañuy arab arab bi ñuy làkk yanantu bi jaar ci namp ko nun arab yi ñoo wëlbati ko nangu ni sëñ Touba nangu arab ci nun làmmeñu arab nangu na grammaire bi mooy annahu nangu na luga mooy vocabulaire baat bi nga xam ne muy firi ci arab mhm. nangu na assaqa moom mooy texe mooy mooy euh, tabe nangu na al jóot mooy loo yor man koo maye yàlla tax yooyu yëpp sëñ Tuubaa danoo fekkoon ñun ñu ciy tagg suñu bopp ñun arab yi mu nekkoon suñu appanage mu ñëw nangu ko ci ñun téye ko ku ko bëgg te dangay ñëw ci sañ Tuubaa langue arab dëgg la dëgg la mhm. daani allugatu wan nahwu ilmul arabi mhm. wal joodu wa saqaau indal siimatahum fa jaahum zóoruta bi أحمد بامبا من على بيروتبي نجل حبيب الله ازور أدبي فصلب الجميع أي صلبي منهم فصاروا معه كالقصبي إلا عصيرة نبيل أنجبي نيكو أحمد بامبا يا أقا تقربي أفيحل لك ظلم العربي بأخذ النحو إن وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودبي ndax togn da fay yell ci yow cheikhul khatib señ bi ni ko man duma togn mu fekk gor soo xam ne ñoom ñoo jëloon seen làmmeñ nàmp ko seen ndey nàmpal leen làkk bi ñu jaar ci jàng ko nga nangu làkk bi ci ñoom mhm. ku bëggati làkk bi ñëw ci yow mhm. di wax lu nu xamut di indi baat yoo xam mësuñu koo jàng mhm. gën noo tabe raw nu fuuf yaw daal kenn nga fi bàyyi muy yaranti moom rek nga war a maal ba ko ak njabootam waaye ku dul kooku rek roppi nga ko lii moo tax nga ñuy tooñ di la ko naar bi wax moo tax sëñ Tuubaa tiitraasu xasidaam du nuroog benn xoolal nuuru daarayni te am bo gis ci xasida ba mu jaaxal la ba nga jëm ko firi man nga nelaw ci bir tiitaraas rek waw man nga ci nelaw ndax mom waxam da koy codé ñu dul mag ñi nga xam mo leen yar jangal leen bopam gëreem leen du ñu mën dégg sëriñ ndax waxam da koy codé sëñ tuba dafa codé ay waxam euh sëñ Ibrahima Diop al Mashari nee laq na ci boromam may go xamni ku kudut mom, ak yalla mi ko jox nelaw nga ci bir may gi xamoo ko dañ cey nelaw neen xat raqa la wax da ngay nelaw ci ci titras yi xolal nuru daare ni nga xamni nuru daare ni laaj na bis mag ni nu ngeen koy firé bo jangé arab mëno ko firé lu dul leeru ñaari kër yi aduna ak alakhirah ni bamay wax ñaari kër aduna taxul ndax aduna du kër dal ni aduna fasu naaru góor la wo xamni nit ki sa su xëyee diko yafal ta war mukk aduna mm-hmm. fasu naaru góor la wo xamni doomu adama sa su xëyee di yafal te du war mukk aduna mbaxalum xeer la mo xamni ñi soor ak ñi mujjë soor kenn du ñorlé hmm. kon aduna du kër ba may wax kër juk aljana ak safaram lo rek kër dal ni kon suma ne nee daare ni moy leer gi nga xamni day ñot hmm. di ki jang diko di ci safara diko tabal ci aljana kon li la nuuru daare ni firi bobu titre amul won fenn xolal téere bu melni wasilatu rubuh nga xamni ni ku nek tonowu nga bëgg bénéfice nga bëgg ñu fay la rek nga am ba déssal ba am boña mu li nak jokku kay la bo xamni képp ku ci jaar la dana la jokkale nga dem ba am ay bénéfice yoy am sa ak sa borom ba paré feeñal ci lo xamni kenn musu ko xam wala bok man ñima jang kenn bindu ko wul ndax ashabul kahfi buñ ca delloo ci alcorane yalla lu mu wax sa yaquluuna salaasatun raabiuhum kalbuhum mm. wa yaquluuna xamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bil xaybi mm-hmm. wa yaquluuna sabatun wa saaminuhum kalbuhum qul rabbi alam bi iddatihim maa yalamuhum ilaa xalil mm-hmm. falaa tumaari fiihim ilaa miraan zaahiran walaa mm-hmm. tastafti fiihim minhum ahada kon xamuñu ko woon am na ñuy wax ne ñett la ñu xaj baalin ñeenteel la yàlla wax am ñu ni ñeent la ñu xaj baalin juróomeel mais jankat yi li tax ñu xam ya yoy wërul yalla da caa rajman bil ghaibi rajman moy tandalé lañuy def ci xay bu yàlla dañuy tànda koy tandalé xamu mu teg ca ni wa sabatun am ñu ni sabatun juroom ñaar lañ wa saminuhum wa samaani ja xamni kon juroom ñatt wër xajba ak juroom ñaar ya xajbay khitmir seigne touba rek ngi jang téré wasilatu rubbo mo indi ca seen tur ñom ñep ñom mukseli nak sazano sak dabarno sak kasaftat yo sak xit ñom ñep indi da ca seen tur ñom juroom ñaar ñak seen xajba Lol di wane kon téré bu doy waar ngok te señ fallo ni won ko sa aajo fajuul ba nopi do am téré bi kon am téré gi pajuk aajo la mi wasilatu rubbah nga dem ci téré bu melni ni duru samin xola woowu titra duru samin waaw nga xam lepp ci salatu ala nabi la ko def julli ci yenantu bi rek tudde ko wurus wo xamni ni dafa sel cher lol ñu tok ko ba mu ñor wurus wi mu cher puré lol mu tudde ko duru samin nga dem ci téere bi tudd fawzul mutin mu def ko salaatu ala nabi muy firi texe kii topp yàlla ndax kii topp yàlla faaw yàlla texel ko ëllëg fay ko mhm. lii nag ak texe la ñëw leen julli ci yarante bi tudde téere kanzul muhtadin kanzu mooy firi banque mooy trésor sa ñiri am sa ñiri aw kontaan na tey kon kanzul muhtadin ñii jubal tey góorgóorlu ci njub lii mooy seen banque fi la ñuy fay ko ñëw leen ci julli ci yarante bi alayhi salaatu wasalaam mhm. xool xasidaam bi tudd salaatul awliyaa yi murit yu bëri xamuñu ko fi salaatul awliyaa yi nga xam ni kii mooy julli bi nga xam wàllu yi ci la ñuy jullee boo koy jullee léegi nga bokk ci gaa yi waxuma la jege suñu waaye bokk ca gaa yi ca ngay bokk te julli yanant benn la ko def xoolal loolu xoolal téere bi mu tuddee am na téere bi mu tuddee nuzhatul ansiq xoolal boobu téere bi mu ko raawee nuzhatul ansiq nuzha mooy firi ci arab promenade mooy nuzhatu muni nak ki nga xam dafa sopp yanantu ba jeex ci tak téré bi defal nako muy nek rek promenade dam nga xam da ci jaar di jàll lu mu bëgg xam ci bi xam ko kon nga xol matlabu matlabu shifaa yi képp koo ni da ngay def requête di sakku ji ak safara ñewal jaar sama téré bi safara bala taxé taxee nga dégg safara si nak ñaar bu ko jappé rek saafara jangor soxla bu teewo faju sax amna lu ko mëna safara boy jang xasi mafatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna ma faati xam nga arab li mu wuuteeg làkk yu bari bu dee français rek nga jàng la clé la ñuy wax mooy port la clé caabi porte eh, caabi bi ci port wala bu mu mën a doon clé la tudd ci français geex na loo jàng-jàng dañ naan c'est la clé jox ma la clé nga xam ko bu dee anglais the key ñu xam ni taa caabi nga laaj bu dee langue hindu ñu ni caabi comme olof nga xam ne caabi nga laaj bu dee espagnol yaabe nga xam ne caabi nga laaj làkk boo mën a jàng rek benn baat bi la am mhm. nag dafa am buy def iftaax lu lay ubbil mhm. am buy def iqlaaq lu lay tëjël mhm. léegi nag bu ne daa am tur miftaax mooy bi lay ubbil caabi boobu miqlaaq mooy bi lay tëjal caabi la caabi bi lay ngomb sëñ Tuubaa wi ne wutal na koy tur miftaax ak miqlaaq mu indi jamoo bi mafaatix def na miftaaxul maxaaliq da ngay dégg maxaaliqu niiraan mhm. lii moo leen di tëjal ay bunti sawara yëpp mafaatixul jinaan lii moo leen tijjil buntu àjjana yëpp mafaatixul bishri kii moo leen di ubbil buntu mbég yëpp mhm. wal am ni ak sécurité lii ñu soxla mhm. ci réew mi kóolute wal janna ak àjjana nag kon tiitraasu sëñ Tuubaa sama mag ji wàcc liggéey démb maa ngi koy jaale senegal gépp di alaaji Taala Siise bu Cenaba te yàlla mayoon ko lool ci xam-xam ak waxtaan hmm. sama mag la sunu ndayee bokk baay hmm. daf daan wax loolu dañuy sëñ Tuubaa hmm. man euh, mu xaddam laa ci canaba di ci kilifa waaye damaa nangu ko yàlla jox cër bu fa masaa ñëw mu wax ni euh, sëriñ Tuubaa ku dul moom moo la gën a rafet le turi dëkk gën laa rafet le turi xasaayit ak turi doom waaw loolu da ko daan wax lu bari kon turi xasaa yit la gën a rafet le ñëpp dëgg la ak turi doom ak turi dëkk loolu alaaj taali si daan na ko wax nu ngi ñaanal tam soxna maam say mbàkke bintu cheikh mouhamadou lamine baara mbàkke borom guy ñë moom it wàcc na euh, di wéyjuru sëñ basiiru jaxate borom ridaa ñu ngi ko koy ziyaare bu baax ak waa kër sëñ baara gépp waaw muy tiis wu rëy ak mbokki jullit yi fi wàcc yëpp ndax léegi dee moom dëgg la defe naa sëñ Hamidou saa suñu xëyee dégg ko kon ñu ngi ñu ngi koy ziare ñëpp waaw ah, di wax nag ñëpp daal ñu waajal la onze bi dëgg la te góorgóorlu ci dëgg la waaw ah, te fas yéene nag mhm. waajal bi bu ko sëñ Muntaxa wootee mhm. nanu xam ni dafa bëgg nu sellal ko mhm. sellal gi mooy jàng alquran jàng xasaayid yi ku ko ci mënut nga téye sa kurus di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di def istighfar di tuub Mhm. di def salatu ala nabi di julli ci yanantu bi di def alhamdulillah di mhm. sante seigne Touba jërëjëf seigne Touba mhm. yoy yep dal di toroxlul sunu borom ñaan jamm ci rew mi ta ñaanal ko mom waye bañ ko def rek lo xamni folklore lay doon wa yoy du am ben solo wa deug la kon ñu daaneel sunu kàddu jërëjëf seigne Ablaye seigne Jibril wa ni nga baxal ñu seigne muntaha seigne muntaha wa seigne muntaha mom Euh, ñëpp xam nañ ko fi mu ne dof bi gën a tuuti ci yoonu bi sax boo ko rombee mu ne sëñ Muntaxa kenn la ñëpp ko xam mhm. te loolu li ko may mooy meloom sëñ Muntaxa bëri na yërmande lool yërëm na jaam ñi parce que noonu la tooge dafa nekk xalifatul laahi fil ard dafa nekk xalifa sunu boroom ci kaw suuf si moo tax ñëpp la yërëm xam na ne njabootam la mhm. sëriñ mun Muntaxa xam na ak nite lu am solo ngoog léeg-léeg kilifa yilif ñëpp waaye du mën a jëflanteeg nit ñi ci day jëflanteeg nit ñi ndax jàngoro jii bi mu nuyoo. xam na ne réew mi ñoo ko bokk. Sénégal njabootam lañu mu jël koppar yu bari dawal ko ci. loolu lépp day wane ak nite. léeg-léeg nga gis sax murit bu mel ni man. taxaw naan man eh, defuma dara eh, mesure de barrière yi ñuy jël loo takkuma nangam mais bu fekkee da ngay roy ci moom moo la gën a jege sëñ Tuubaa ndax mooy sëñ Tuubaa moo la mag gën laa yàgg ci jamono gën laa xam ëpp la xam-xam ki muy gisantel di diisoog moom doo ko gis waaw moom suy takk maskam yii ak di laal gelam bii bëgg na ñun ñëpp ñu roy ko ci loolu loolu moo dignité mhm. kon sëñ Muntaxa taxaa ngay gis ci moom nite gi mhm. gis ci moom xam-xam bi ndax waxal na boppam ñëpp di ko dégg mu nii bi ma jàngee sama diine ba xam ko lool damaa dem sóobu ci njàng sëriñ Tuubaa dañ koy jàng mhm. ba fa lillaahi alhamdu ñëwuma ci ko yàlla bind lii la wax kon moo nu gën a xam diine gën noo xam sëriñ Tuubaa bii mu jógee ci loolu mu tarbiyewu ci taalibe kuy magam gërëm nga ko kuy bàyyam gërëm nga ko loolu Sénégal gépp seere nañ ko këru diine yëpp mu am lanteeg ñoom ëmbal leen aw yiw ñëpp a ko sopp ñëpp a koy ñaanal réew mépp temporel ak spirituel ku nekk mu jëflanteeg yow ci jëflanteeg jullit ak moroomam ci lu rafet ku ne mu jox la sa àq mm-hmm. mag ñëpp te gën leen a yaru ñi mu siqal sëñ Tuubaa mu ne ñooy samay sang ndax yàlla naa atal xarnu bi mbeg maa nge teeru leen basiir doonay basiirun wa nasiir ku teeru naan lekk ba suur du xiif du mat ci xarnu bi nag dégloo leen mën a jariñu dégloo leen mën a rawatina ñi tudd di mu tudd tudd bi te ma toog kon war ma wax moo am te am jamaal te xar kanam baaleer xamaal te bari xam ak xalaal buuri kabi ci taar ba ca Yuusuf al Karim mu fal ko def ko doom jigéen a ñëw tàggoog sagoom mi ci ak la daal raw fóore yara fi te mus ci yëfi ndaw mus waaye dama war a wax fii ma fa mag ñi daa àgg na fa romb na sama juróom ñett na ngirum tasawuf ku na la baayam la nuru rek mhm. ci lépp mhm. defe naa wooy woo ngeen dégg sëñ Moussa Ka wooy ko sëñ Bachiru ci xarnu bi mhm. war na ni sëñ Muntaxa moom baayam la nuru ci lépp baayam sëñ Moussa Ka islaahu zaatil bayn la ko doon tudde moo daan yéwénal diggante yëpp sëñ Bachir fi mu ne bari na ci yoonu murit yoo xam ne duñ ko waxtaane ci pénc Mhm. waaye yëpp liggéeyu sëñ Basir la ci bari mhm. te lu ñuy waxtaane ci biti ndeysaan ngir rek rafetalam gu mu rafetaloon wallaay ak fonk gu mu fonkoon ay kilifaam mhm. diggante sëñ Modou Moustapha sëriñ Fallou sëriñ Baara ku ci nekk mu am alaaxa bu rafet ak yow am kooki rakkam di taxawaay bu ne mu taxaw ko daan wax ni du ma nekk xalifa sëñ Touba moom sëñ Bachir buñ ko mësee wax am ah, Mbàkke loolu nag mu ne yaa ah, wax dëgg dara nekku ci waay du ma nekk xalifa sëñ Touba waaye ñëwoo benn xalifa ndax sëñ Touba ma jur jàngal ma yar ma kon nag sëñ mun Muntaxa dafa toog toogaayam boobu toog toogaayu sëñ Touba. te it bi muy ne bi ñu koy junj ni mooy sëñ Touba. boobu sëñ Abdou Lahat a fi nekk dëgg la ndax sëñ Mor Mbay Siise ba ca mhm. njaarim wàllu yu mag woowu mhm. moo ni woon sëñ Touba moo ni ko mhm. saa soo génnee àdduna maa lay jullee si lii la ko sëñ Touba waxoon 88 mu génn àdduna sëñ Abdou Lahat ni ana sëñ mun Muntaxa demal jullee ko kon booba la ñu junj ni mooy sëriñ Touba kon sëñ Muntaxa topp nay baayam toppi magam ba làq seen ngërëm mag ci yoon wi te xeebul kenn ku ma mag xeebul benn taalibi mhm. ñëpp la jàmm mhm. di mbégte foo xoolee jëmam mbég ngay gis ci moom dëgg la bëgg ñëpp ëmbal ñëpp yiw kooku daal su wootee mhm. ñëpp war nañ koo wuyu ca na mu wootee dëgg la te jëfe ndigalam te moytu ay tereem te góorgóorlu di ko ñaanal mu yàgg fi tëbél dëgg la jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Jibi xanaa ñu ñëw ci dernier kàddu yi balaa sëñ Xaadim a tëj mm-hmm. euh, ñu mën a tàggatoo sëñ Xaadim la ñuy ñëwaat léegi ci moom su ko defee mu tëjal ñu li nga xam ne ni mooy thème bi ñu door a ñëw def benn tour su di tàggatoo su ko defee sëñ Pape Ndiaye tëjal ko ak xasida eh, ndax moom tubaarkàlla Cees la jóge waaye ñu gën a préciser rek sëñ Jibril ci eh, sëriñ bi ci yërmandeem moo sàkku fu sëñ Touba mën a nekk rek ñu dundale fa la onze bi njàngum xasida bi nag nañ koy defee Touba noonu lañ koy defee fu doon ci kër sëñ Touba yi mooy sëñ bi leen ki bëgg mooy mu sell te itam mu andando ak teggin yi nga xam ni mom la khasside war am te it ñu gëna wormal khasside yi gën ko ñongal te xam ne taxaw di jàkkaarloog suñu borom di ñaan li nga xam mo moo ta ñëpp yàlla jaarale ko ci barkeb sëñ Touba khasside yi jële ko ci réew mi te gu gëm ne mën na lepp ndax xasida yaa ngi faj suñu aaju di faj suñu jangoro war nañu gëm ne mën nako fajaarel suñu mbokk yi ñu dëkkandool sax te xamuñu luy khasside loolu nak la sëriñ bi joxe ndigal li terewul ñi nga xam ne ñooy kuréelu xaside yi ak ahlu bi yëpp sëriñ bi woon na leen ci Touba ñoom ñu ñëw dundale ko foofu ca dëkk bu sell ba ci bernde yi ci yaatal ndax ku munta durusit mënoo jàng yàlla taw fi xeelawut ñëpp mën a jàng waaye kum doon it am nga ci sa doole aslaf soo mën a sàkku def ko ca biir maa ngi jot léegi préciser mhm. ci ñu góorgóorlu ci li fay dem mhm. ndax bis la boo xam ni mhm. ña fay daje day am lu nuy jëfandikoo te taalibe yi ku ne ak fa nga mane tey ji am na koo xam lam ma ne mooy joxe ay bernde ñay jëfandikoo bernde bokk ak moom tuyaaba sëñ bi dafa waxoon sëñ Mbàkke Juuf radiyallahu anhu Mbàkke Juuf mu ni ko Mbàkke mu ni ko dugal ci kees gële nga xoolal ma ndax soxna yi indi nañ fa xéewal yi sëñ Mbàkke Juuf dugg ci biir ñëw ni ko fekk naa fa fukki ndab ak ñaar yu defi xéewal sëñ bi ni ko boo demee séddu ko ci digg bi nga jël benn xaaj bi joxal ma ko jigéen ña fa ñu nekk mu dem jël juroom benn bool ya bool ya yóbbul ko jigéen ña del si sëñ bi ni ko duggaatal ci kees gi la fa des nga xaajaat ko ci digg bi mu xaajaat ko muy ñett ñetti ndab mu ni ko yóbbu ko fa ngeen di liggéeyee ci sama liggéey bi ngeen jëfandikoo ko sëñ Mbacke Juuf ni cey yàlla sëñ Tuubaa ni ko noonu naa daam loo wax mu ni ko dama ni cey yàlla sëñ bi ni ko lu la yéem ci li ma la wax mu ni ko dama bëggoon am doole gi mbokk yi am di togg xéewal di ko andi te awuma ko lii la tax may may yéemu ci sama borom sëñ bi ni ko yaag ñi koy indi keppayam ndax tuyaaba giñ ciy am su fekkoon yéen ñi koy jëfandikoo lekku leen ko day yàqu te ñam buñ ko defaree mu yàqu amatul tuyaaba pour yiw man caa am day fekk tuyaaba am te bu yàqoo lu yàqu du am tuyaaba kon yéen ñi leen ko defaral ba yàquwul lekk ko yéen ak ñoom ña ko joxe yéen a yem tuyaaba ndax su ngeen ko bàyyi duñ ca am tuyaaba kon nag nañu xam tamit ni yëf ñay indi ji la bokk am na ñoo xam joxe la ñu mën am na ñoo xam jàng la ñu mën dëgg la kon la nga mën a rek nga fare fa loolu sëñ bi na ko taal góorgóorlu ci bu baax ba sàmmoonteeg teggin yi ak warma bi ak ni mu ko bëggee eh, kon Touba lay doon incha allah ak mboolem fu Touba yi nekk ci eh, réew mi ak bitim réew ñi nekk bitim réew diaspora bi yëpp ñi ngi yónnee ay bataaxal di wax ne ñoom it danañ ko dundale foofa maa ngi jot léegi message sëriñ Basiru Mbàkke moom eh, borom Darou Moti sëñ Bas Anta mu wax ni foofe ca Darou Moti ni ko sëriñ bi bëggee noonu lañ ko fay defee incha allahu taala ci yaatal gépp rek waaye waaye eh, ki nga xam ne ni itam mooy baylaat moom sëriñ Cheikh Abi moom it mi ngi wax ni foofee ko sëriñ bi sàkkoo fa lañ koy yaatale ñoom it ci ëllu xasida yëpp maa ngi jot léegi message sañ yërim aw sañ xaadim kebe xasid noonu noonu ak eh, kenn du sëriñ bi groupe kenn du sëriñ moom it fas nañu yéene ñoom tamit àndandoo ak kuréelu xasida yëpp ci yaatal ci bernde yi eh, ci sunu njiit yaa aw sow ak mboolem ñi ne ci ginnaaw yëpp ndax ñoom ñu ngi ko yaatal ci réew mi bitim réew sëñ Jibril sëñ Lamine Diouf moom lañu ñu waroon a jël ci téléphone waaye dafa xam ne ndeem yaa ngi fa yàgg sëñ Jibril rek lépp matale na ko moom la ñu di ko sant baax ci turu euh, télé bi ak sëñ Assane Mbuub mi yoroon communication bi ak sëñ Gànna Mesre sëñ Fallou Gala Silla euh, waaye gërëmaat sëñ Youssou Diop bu baax a baax ci taxawaay yi euh, gërëm bu baax a baax Adja Asugay Saalihaat ak Saalihaat ba nekk Canada moom it Amérique moom it mi ngi topp kii bi di wax ne moom it Adja Sougay mu tuwaarkal la joxe na ndawal ak ay ci yu bare bari yóbbu ko ca daara istarxee ñu ñaanal sëñ Maam moom sëñ Fall jaxate supul nag xam ngeen ni fii dañoo am jëwriñ muy alaaji mbàkk yu fay euh, lu ci am rek ca moom dana ko yaatal incha allah waaye ñu di ko ñaanal ndax bañ jàppee bis bi ba léegi yaakaar naa lépp lu jëm ci jumtukaayu tele bi ak lu jëm ci xalaatam ak dooleem bàyyiwu ko ginnaaw lépp boole na ko ci li nga xam ne mooy programme bis bi ñu di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal ci taxawaay yu am solo yooyu yàlla gën koo dëgëral kàttanal ko ndax li waral sëriñ bi jiital ko fii kat mooy mate ko sëkk tey lépp loo xam jëm na rek laa mënta tooñ waaye tasawuf ak Masamba Ndiaye démb lu mu yàkk fi maag sëñ Abdoulaye Diop Bichri wañu ja dal dee waaye bàyyi nañ la ak yàlla euh, tubaarkàlla sëñ Afi Thiobane sëñ Jibril it mi ngi wax rek keroog taxawaay bi ci Touba TV war a am ndax moom it euh, ba bis bi tàmbalee ba léegi bañ dem ci réunion ba ñoo ko teewaloon waaye lépp da koo jëlaat dugalaat rek danañ jël doole jeeg mboolem matériel yi mu laaj def ko ci bis ba itam incha allahu rabbi noonu rek lay demee kon nag Euh, nu ngi ñaan yàlla defal nu tawfeex ko defee comme ni ñu koy defee ci buy dégle jàngale alxuraan waaye nag bu dee fa Tuubaa moom ahlu xasida yi sëriñ bi ak ñi nga xam ne ni ñoo ci nekk euh, jàpp naa ne ñu ñëpp incha allahu rabbi danañ fa daje ci dundale ko ni ko moom Cheikh Mamadou Muntaxa ku fa noppi nag mu leer la ne dangaa mel ni am day biraan rek dem yóbbu sa seen ndox boo paree foratal say sa sa yóbbu ndax màggal gaa nga ñëw te Baay Faal dañoo war a bare dëkk bi te bis boobu nag mooy final bi <laughs> final baa ngooga final bi daa war a kii waaye yóbbu sa sa seen ndox rek ñëw toog lépp set wicc ñu sàmmonteeg warma yi sàmmonteeg eh, àq xaside yi loolu rek moo nekkoon liñ ci yaatal sëñ Jibril ma bàyyi la nga ñëwaat ak sëñ Xaadim su ko defee eh, ñu daal di tëj jotaay bi li waxtaane eh, moo ni moo ni toll mm-hmm. noonu ñu ko waxee it te gaa ñu gannaaw dañuy laxu mm-hmm. toog fa ñuy toog di jàng xaside yi mm-hmm. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna maam Bousso Tamba moom it mi ngi topp jataay bi te di ko rafetlu hmm. ñu ngi koy ziar di rakk si sëñ Fallou Bousso Tamba hmm. koy ziar bu baax a baax hmm. kon euh, sëñ Xaadim foofu rek xam naa dellu siwaat ci yóbbal bi nga xamante ni nag moom ngay yabee ñi nga xamante ni ci jëm bis yu mel ci yu mel noonu ak euh, yu nuy gànnaayoo dal bu ñuy demee ci yu mel noonu muy lu am solo. jërëjëf euh, sàgg fi te wér waaye du nuyu baax suñu gànnaaw mesere ak numéro yëpp nee na naa ko yónnee numéro gaa yëpp ndax bëgg ta wax <laughs> waaye bu dee lu baax Cheikh Amadou Fadil Mbacke dafa am benn taalib bu mu sa toogal ba mu ko dama laa bëgg a defar ba mu ko waxee mu ni teg xam naa mu jàpp ni day ñaan rek yi fi sotti suñ fàll bi ni ko defar gi nag ndigal loy looy jëfe mun ko jataay bu baax boo dem na nga taxoo ki teggin ndax bépp jotaay bu baax bu ne mhm. sëñ Tuubaa dina fa ñëw ay yoon waaye xasida yi ak maandu rek la laaj te loolu nag sëñ Tuubaa da koo jàngale ci njaareem sëñ Ablaay mhm. dafa woo sëñ Moodu Mustafaa Mbàkke ak sëñ Masamba ak sëñ Moodu Masamba mhm. leen su ngeen delloo seeni kër ba mu ngi njaareem basang romb jaan ku ñëw rek mu joxoñ la genn basang nga teg fa say xasida ndax bëggul xasida yi jaxasoo bi ñu noppee mun leen yàlla maandu la bëgg mhm. waxi sëñ Tuubaa nag laay wax mu ne yàlla maandu la bëgg daal leen ni xas yi laa bëgg waxtaan ak leen xasida yii day képp ko yi nga xam ne seen ak jot mayu leen ngeen njàng waaye yéen a ngi koy wormaal xam nga taalibe yi xasida yi ni am yëpp mën na koo jàng oh. mais fi da ngay gis koo xam ne boo demoon kër am na néeg boo xam ne ay xasida rek la fa Mm-hmm. mais loolu mënut a daje mën koo jàng lépp waaye sëriñ bi ni mu ngi koy wax dañuy xasida yi nga xam ne seen ak jot gis nga may ne leen ngeen koy jàng ak waxtu mu mën a doon mm-hmm. ak xasida yi nga xam ne seen ak jot mayu leen ngeen jàng ko ñooyam ci yéen mm-hmm. dal leen ni képp ku faatu ku ci faatu bu ñuy defar bàmmeel ba xasida yaa ngi taxaw di leen xaar nee na xasida gu nekk sëñ tubaa nee na jëmm lay doon sëñ tubaa wax loolu nee na xasida gu nekk jëmm lay doon ne na saa la dencee ci bàmmeel bi ñoo fay nek ak yow dila la lepp lo loo mon ci lu bax dinañ la ko andi ginnaw mhm. na fo nara jaar ak tiis mhm. ñoo la ci musal mhm. nee na boo sa kanam borom do lay yi na ñoo lay lay sa diggante ak sa borom ngeen and tàbbi aljana keroog ndinkan li sëñ Tuubaa jox sëñ sëñ modou massamba sam ak euh Masamba ak sëñ eh, modou moussa Mbàkke kon lu mu tekki limi tekki moy ndaje ndaje ma yépp ay teggen rek moko lal ndax yoonu murit yoonu yàlla boo ci nekkee dafa mel dangay ngay rooti te root nag faaw nga wut ndab loo xam ne moom ngay roote nee ndab li ngay roote ci ndoxum yàlla moo ay teggin kon teggin rek moo ci nekk ndax teggin bu duggee ju baax dana dugg parce que teggin mooy lépp kon loolu mooy ndenkaan li li ci mhm. toppit mhm. mooy ñu ngi ñaan yàlla ñu yegg ci ak jàmm mhm. ndax bis def ñaari bit mooy dat yi mu tombeel dafa doy waar ndax benn bi mooy benn <clears throat> fan ci weeru muharam wala ñaari fan benn fan lay doon wala ñaari fan muy benn ñaareel bi mooy buñ xoolee ci weeru tubaab li mu tombeel date boobu xam ngeen date bu dam date bu am histoire da ci yoonu murit parce que li bis août la suñ tubaab génn mbàkki baar yi la onze boobu fu mu ko fekk Louga la onze boobu foofu la ko fekk te gis ngeen ci xas rek ayesaminnilaahu inde jeewali ñaari dëkk yooyu keroog Gabon fu mu fu mu fu ñu ko tegaw tiis tudd na ko ci xasida gi waaye déggoo mu tudd kokki déggoo mu tudd Louga lu ko waral mooy foofu jàmm rek la fekk te jàmm jooju nag mooy la onze bii mhm. inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran seigne sëñ mhm. kon ñu ngi ñaan yalla ñu yegg ci ak jàmm di len sant baax nak ci eh, eh, eh, waaw Bashiril mu'minin wa man ñu ngi len di ñaan ñu ngi sant baax ci jotaay bi ndax jotaay bi amna solo ñaan yalla nak manam ñu yegg ci ak jàmm ñaan seigne Muntaxa mu yàgg fi lo te ak mboolem kilifay diine yi ñaan yalla defal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf seigne khadim Mbeng soxna lo mm-hmm. momit joxe na ndigal mm-hmm. neena dina ko amale ci buntu kërëm gogu ci dar khudus mm-hmm. ña ngi koy bass nee ni ñuy defee gàmm gi rek nañ ko nañ tënk kàddu yi ak tàggoo yi su defee suñ papa mën a mën a tëj ñu suñ amit xam naa soxna yi ñu jaajëfal leen bu baax waaw euh, soxna Yaasin Bamba wax euh, mm-hmm. soxna maam aw Bousso Mboup mu suñ Fallou mm-hmm. tey kontaan lool xol mi sedd na bi mu jàkkaarloog jëmm yi mm-hmm. euh, soxna Adama Ndiaye murid saadix moom dama ko yeb waaye tubaarkàlla jàmbaar la ak eh, soxna na biraan mu sëñ fàllu wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo lool ñoom ñooy ñooy rekki maître bay di mbay avocat mm-hmm. nga xam ne moom ku ne xam na sama digganteeg moom mm-hmm. Euh, sunu yaay musli it xam nga ni télé bii moom bañ na ko ba doo ko faa kale moom Touba TV lu koy jàll mu tëla mhm. moom boo ko laajee mox la mhm. moom Touba TV la kale téléem mhm. waaye nag moom daa foobu rek ne moom léppam sëñ Muntaxa sëñ Touba la day jëli bagage am yóbbu xam naa ne Jibril Ndaw moom bu daleeg yaa musli moom tubaarkàlla dana métti lool dana yàgg ñu ngi leen di gërëm bu baax baax ci seen teewaay sëñ Saliou waaw amiin jërëjëf sëñ Jibril jërëjëf sëñ Xaadim ak sëñ Abdoulaye techniciens yi ci télé bi yëpp ak soxna yu baax yi ngeen wax. li ñuy wax mooy ab taalibe sañ te digal morom ka. léegi sax ma gis koo xam ne day mel ni moomam murid yi. buy wax ak ñoom. waaye ab ay wax ñu rafetal ko rek. waaw suñ mag bi nag moo waxoon la tafalu sayan bi xayri isni fal isnu sartun fi xabuli sa ni kon sëñ bi digle na nanu àndoo ñun murid yëpp jëf ndigal li rek waaw ñi nga xam ne ñoom la ci jiital ñu jiitu ci. Mm-hmm. loolu rek mooy wax ci. li ci des it mooy sëñ Baara Diané daf maa ma sa way juróom sëñ Abdoulahi Diané daa nekk gànnaar ñetti at di jàngaleel sëñ Touba. Mm-hmm. alxuraan mu nee na am ku wax baayam ni ko fii jàng xew fi liggéey fi xew nee na baayam mel ni ku ci am njëgi-njëgi ma ñëw ci sëñ Touba sëñ Abdoulahi Diané nee na ma ñëw ci sëñ Touba mu ne ma ana lu mu doon nee ma ni ko ah man de dañ may fekk fee ma ne di wax ni fii jàngale xewu jàng ak jàngale xewu fi liggéey fi xew. nee ma Abdoulaye jàng xewu fi liggéey xewu fi ndigal fi xew. ñu digal la nga jëf jariñu rek fi xew. la ñuy amee li ñu bëgg ci sëñ Touba. ñu baal ñu xàq bu dee am lu dëng. bu jubee sëriñ bi la donc koy sant te koy delloo. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. jërëjëf. sëñ Jibril jërëjëf. xam naa sëñ Pape rek. sëñ Pape mooy tëj moom daan la waaye waaw ñu bàyyi ko mu tàggat waaw yow booy tëj rek. waaw defaale benn tàggatoo ba defaale ko ab tàggatoo. waaw sant général bu baax ñuy sant bu baax a baax. Mm-hmm. rafetlu jataay bi tey ñaan suñu borom. Mm-hmm. Euh, yóbbu ñu ci jàmm. Mm-hmm. di ñaan yi tamit taxawaay yëpp. di xam ni daal organisation yi mu ngi dox. am na ay comité de pilotage yu ñu teg. mbooleem luy journaliste. ak technicien buy yëngu foofu nan lañ koy def. ndax bis bi rëy na yaatu na. te fenn fu nekk. war nañ fa teew. wane la nga xamante ni moom moo fa nekk. Mhm. Euh, sëñ Assane mi ngi ànd ak sëñ Assane Mboup mi ngi ànd ak euh, comité bu am solo fas nañ yéene daal fépp foo xamante ni yoo xamante ni fépp fu euh, waaye nekk bëgg seetaan yaay xool fa la ca neex. nga jàpp ko di ko seetaan lien boobu tamit dinañ ko def direct mm-hmm. dina am tamit yeneen yoo xamante ne nag dina ànd ak événementiel bi mm-hmm. mooy euh, am modérateur yeeg yéen ñu mel ni yéen mm-hmm. di expliquer nit ñi ak yu ma noonu di def live bi en direct ak yu ma noonu kon daal waajal nañ ko waajal nañ ci tamit lépp loo xamante ne ba mu nekk daal noo xamante ni wax dëgg yàlla dinañ ko def mu kawe njot kon nag képp koo xamante ni tamit suñu borom dogal na ne jote gi Touba yi tamit du du du yomb. Mm-hmm. waaye daal ñu xam ni tamit tegal nañ leen ay dispositifs yoo xamante ni incha allah dara du leen ci dara dara du leen ci. mooy techniciens yi du dara loo xamante ni jëggaani nañ mm-hmm. lépp ci suñu biir la nekk. muy techniciens yi di di ñëpp daal ñu fas yéene koo def te loolu yaakaar naa ne tamit ñu murit yëpp. ñoo war a maase ñaan ko moom mhm. Cheikh Mouhamadou Mountakha mhm. mu jël mbas mi ñaan mbas mi dàqal ñu ko ndax kat loolu dañ ciy toll mhm. mag ñi ba leen njéeréer yi sonalee dana ñëw suñ faal nu ko jële ko fi mu jële ko fi yeneen ak yeneen yu nekk am na fi sëñ bi nag nga xam ne fa yi nañ dajaloo dem ci moom dëgg la ni daal man laa ci xam naa sañu koo digal sañu maa gaar waaye demee ñu wax ko loolu jërëjëf sëñ Jibril ñu gërëm ko baax a baax eh, xam ngeen ne sikkimam bi bu ngeen ko xoolee xam ne masque dong nga ko ko teg <laughs> te wax dëgg yàlla war naa tàggoog masque ah, ndax Jibril melewul melut woon nii waaye Pape gis nga ko tubaarkàlla masque bi muy takk moom mujj dem ba ci bi xam nga ca ba ñuy door na lu xaalis nañ ko laaj lim na lim du joxe milliard daana ñun ñëpp nañ dajaloo dem ba ca mam ne ko wala bu nit ñi demee dañuy dee kenn kenn xamoo sëñ Tuubaa ku jàpp ne loola daray ayib da caa nekk mbaa tooke da caa nekk xamoo sëñ Tuubaa murid dañoo woowle murid dañoo dëgër bopp murid di faale kenn yooyu yëpp baax na ndax jig nanu moo nu indi yoon yi fii mu ne ndax yoon yi am na ñoo xam nekkoon nañ fi buñ sañoon semaine la fi def sëñ Tuubaa la yàlla fay tey ak ëllëg wala sto as alu xayran naafiillaahi bu sëñ Muntaxaa wootee yàlla moo ko déy tax mu woote mu woote ba 18 safar jàll bu ñu ko wàcc mukk sëñ Muntaxa won nañu yoon wi ca la ñuy jaar rek ba màggal gi jàll nun nag lëjaluñ kenn sonaluñ kenn li tax sonaluñ kenn mooy ki nu am li mu am doy nañu sëkk jéggaaniwuñ dara wutiwuñ dara boolewuñ dara ak sunu pas-pas itam nag sëñ Tuubaa rek ci la ñuy kon nag noo ngi sant bu baax a baax mbokki taalib sal mooy fexe ba kii ci pénku jumaa ja nga xam ne moo nu mënal fii mënal nu fële lu mu bëgg ci la xëy ci la ñuy gont ci la ñuy dee noo ngi sant ñi ñu topp ñëpp di euh, Cheikh Abdou Bali mi ngi wax léegi ne euh, la set xam nga tey lañ doon teg xeer wu am solo woowu nga xam ne ni euh, fële ca euh, ca ca Touba ñu di ko sant baax di ci ci ci turu sëñ Moustapha Ndiagne di ziar baax sañ Jibril soxna Fat Jatara man ngi ca Amérique di ta doomi sëñ Moustapha Jatara sëñ Yirim Aw waaye dafa am soxna su baax ndeysaan soppeeb sëñ Ablaay mii la ak sëñ Saaliw dafa nekk ca Montréal muy soxna Maguette soxna bi ni ma ko waxee rek ñoo ngi waajal ñoom tamit liggéey bu am solo boobu eh, di jaarat ba alaaji mbàkk yu fay mm, sëñ ba sëñ Mamoor mm-hmm. say jaxate ni ko suñu lay wax waaw sëñ Baara noo war a ànd ak moom ñeent fukki guddi bàyyam boobu dëgg la ak mboolem mbokkam yi dëgg la waaye soxna say Baara mm-hmm. yàlla daa dogal ñu yaroo ca kër ga mm-hmm. ndax Baye Moussa mi ko yoroon di way sëñ Bas Jaxate Rida noo ngi ñaan sans borom mu yokk ay leeram te mhm. taas ñu ci barkeem ci barkeem Cheikh Mahamadou Lamine way juróom bu baax ba ñoo ngi koy jaale sëñ Abdou Lahat ak Bas ba ci sëñ Fallu mhm. njabootam gépp ñoo ngi leen koy jaale mhm. jërëjëf kon sañ daam ñu ngi lay sant di la gërëm euh, ci réalisation ba am solo bi moom murid la mi ngi waajal yëf yi waaye sëñ Pape Cheikh Bey mi nga xam ne boobaak léegi ñoo fi nekkandoo euh, ci liggéey gërëm bu baax jekk baay laat tey maa ngi ca réalisation bi ñu ko sant bu baax di ko gërëm euh, ñoom it ñu ngi waajal seen équipe tubaarkàlla di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex sànq gis naa mu lay noggudu sëñ Pape Cheikh temps yooyu la jël waaye terewul ñu gërëm ko rek Baye Cheikh Balla Samb ñu ngi koy nuyu balu laat ak di ñaan sëñ Touba defal na tawféex Adja Sougey ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex di leen jox dig daje incha allahu taala ci beneen jataay naan leen guddig jàmm lay leen maal baraka asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yow mi tax may nduru kenn mbaa dara te ma koon ci yow rekk laa war di wax yow borom kun fa yëkkoon xam naa di nga ma ko jéggal ndax xam nga sama biir sa yërmande daa bari ba dooma bàyyi ci biir dama bëgg rekk ñépp xam ni li ma defal dafa yi du kenn man ci doomam doonu ndey te du baay bala yàlla defee xarit yonen bi def la xarit malaaka yi def la xarit yonen yépp di sa xarit yawit nga ñëw ci biir nit ñi di ci tànn ay xarit am na ci baay ak imaam waaye yaa ma def xarit wóor na borom daaru muxti wóor na ndaayaan may taaw wóor na borom ñaari leeri duma sa xaritu daaw wóor na borom daaru muxti wóor na ndaayaan may taaw wóor na borom ñaari leeri duma sa xaritu daaw bu daaw laag bu daaw géej tey bu ak déwén ba faw sa xarit laay doon man te deñ te du deñ duma ni man rekk la ndax ñépp bokk yam ci yow xaadim docteur maa ko ñee ndax géntam ga ko géntee ca Égypte moo tax Mbàkke ma ko koy ñee ndax ku tedd kii ku mu wax lii leer na ma ni ca saalihi na ya nga bokk ma wax lii